asalaamaaleykum àdduna warngal këpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen dinu ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Tektal TV ñu ñëw ci bésu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim defe naa bi mooy troisième bis ginnaaw màggal Touba defe boo koy dina ak màggal Daaru bis bi mooy bisam bu mag di dix-neuvième édition di bésu sëñ Moustapha Ndiaye Al ci Fass Mbao cité Mandela nga xam ne kum fonk kum fonk di ko ko fekk ku ko fonk di nga ko ko fekk di nga ko fi fekk te ku fi dajee ku mu dina ci kontaan lool ndax bis bi fonk na ko trop euh, li naaj bi tàng-tàng mii fii ci togg ji ak euh, jigéen ñeeg góor ñeeg fii daal Pastef moo fi war a feeñ ak yaatal ak bernde war na bis bi fonk na ko bu baax a baax sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim ñi ngi ci bis bi nga xam ne que ku la fi fekk fonk na la ku fi ñëw fonk nga ko euh, mu doon bis boo xam na que fi nga ko teg sori na lool ku fi ñëw nga teg ko fu sori lool instant mm. eh, bi naaj bi tàng gis nañ ne sonn nga yaa ngi dugg fu ne dugg ci lu ne yow ak jàmbaar yi la jàppale yëpp fi mu nekk ñu nekk ci toggukaay yi parce que waañ dafa am nu muy toll mm. fii toggukaay lañ ko mën a wax defe naa liñ fi togg moom mën naa jox waa Fass mbaaw bésu tey yëpp ku ne eh, bañ a togg añ boo la neexee ak dëkkandoo bu rafet bi nga dëkk ak ñoom lan ngay wax ci nii ñu tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahiim ya bisimilah rahmaani rahiim ñaan yàlla àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin te ñëpp jële fi yiw ak waaw xanaa alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah santaat yàlla bu baax julli ci ab yonenteem santaat Serigne Touba tey jaayante waat ak moom gërëm Cheikh Mouhamadoul Moustapha di ñaanal Serigne Ahmadoul Mokhtar sunu bunt ci Serigne bi waaw sëñ Cheikh ñu ngi rafetlu kàddu bu baax xanaa di am mbégte rek mu yaatu rek sant yàlla bu baax xel mu dal ci liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba fii ci Fass Mbao ni ko Serigne bi dogalee ak ni mu demee nga xamante waxtu wu ñëwee rek dinu gën a yéem ci fànn yëpp waaye ren gën a rawati moom xam ji moom damay wax ne maa ngi koy wax gaañi ba démb rek ci jataay mujj bi ne leen lu ñu doon góor góorgóorlu rek bay boo nu yokk ko te xam ne nit ñi nag sas nañ ñu sas woo xamante bi ne xamuñu fu ñu jëm waaw lépp lu ñu doon def ci lu baax rek bay boo ñu gën yokk ndax nit ñi lu ñu am tey def lu ñu am def nañ ko rawatina koñ bii ma dëkk Euh, te ku ñëw ci guddi ca baax bi da ci xam dara kon daal damay bàyyi ñi nga xam ne ñooy liggéey waañ wi rek rek nga laaj leen jawrin sañ Amadou Diouf a ngi nii di président organisation fondation Al Karim ak jawrin soxna yi soxna maam Diarra Baar ak ñoom soxna Ami Diagne sëñ Modou Diop mooy jiite kii sëñ togg yi ak jawrin mboolem yi sëñ Bonaama Ndiaye ba defee nga jël leen ñu leerale lépp loo xamante bi ni nii rek bëggees na koo xam ci màggal yi lu jëm ci waañ yi incha allahu rabbi kon balaa ngay dem Baye Cheikh yëkkati ñaari kàddu bu dee da ngay kii Baye Cheikh lan nga yëg euh, kontaante rek mhm. euh, Sëñ Moustapha nekk suñu xarit mhm. nekk suñu lépp mhm. nekk suñu baay nekk kon nag euh, am na bis yoo xam si ni sax woo nañu si waaye dañoo bàyyi bis yëpp ñëw ci ndax suñu wóolal la ndax maa ngi koy tuub bu baax ndax ni ma ñëwul ci màggal gi mm. maa ngi koy tuub bu baax ndax màggal gi ku nekk day woote ku nekk di woote waaye maa ngi bu baax a baax. màggal moom dafa yàgg daal da ngeen yàgg. maa moom yàgg. Mm-hmm. kon nag ndegam ñëw naa ci màggal gii. nga xam si ne mooy màggalam. Mm-hmm. dina ci bég lool. Mm-hmm. kon mi ngi mel ni ñëw naa ci màggal gépp. jërëjëf waaw. incha jërëjëf kon kontaan nga ndax ni nga gisee fii lekk yu bari. waaw kontaan naa ci lool kontaan naa ci kontaan ni naa. kii bi jàll na ba pare waaye sax kon sëñ Amadou Diouf ah. waaw kon lan ngay wax ci bis bi. waaw bis bi daal lu màgg rek defuñu ko eh, la def. waaw di sant bu baax ne sëñ Moussa Fall di di bëgg loolu nag. ndax yàlla dafa dogal eh, dañoo am chance ñun waa cité Mandela rawatina waa Fass Mbao. Mm. bi amee sëñ Mor Moussa Fall suñu biir. ndax tey jii def nii. ak ubbeeku yoon la rek ndax sëñ Moustapha bu ñuy màggale sëñ Modou Moustapha mu nekk ki nga xam ne moo jiite yoon wi moom mu ñëw jiite ñu fi si man la ak ndam la tey jii bés bi nga xam ne lañ taxawal ni euh, li nga xam ne lañ koy bigalee nit yow def na ko ndax rey na fi euh, ñetti ñetti nag gëléem euh, juróomi xar maanaam ak téeméeri ginaar moo wàcc na fii tey fukki mban ak juróom lañ taal ni boo ak tufe yi nga xam ne moom lañ taal ngoon ak misu kon loolu ñun loolu lañ moo ne suñu liggéey si waañ bi tey loolu yëpp matal na ko waaw ñu tuddee ko ay nit ñu am daraja nag tey tey lii nag du bés bi ndax démb dañoo yóbbu si prison yi nga xam ne mooy tënk dañu faa yóbbu ay ay ay ay xéewal fa ay madaar yóbbu fa lépp lu jigéen du jëfandikoo yóbbu nañ ko fa fondation Alkarim hôpital psychiatrique bi nekk fii mbaaw borom xel yu manqué yi ñu yóbbuwaat fa lépp luy woddaay ak lépp luy lekk ak euh, maanaam euh, lu leen di serviette ak yooyu ñu yóbbul leen ko fa kon loolu yaakaar naa ne moom la muy def da ko def pour social lii nag ñuy def nii tey jii moom nee na laayu si këram benn dërëm joxe aussi benn carte soutien lépp ay carte invitation la moom balaa moo jàpp bés bi yemb na léppam yemb na kon nee na ku ko si jàppale ku si ñëw fekk ko si ku demit da nga ko si baax ku ko si jàppale nag gusu laa jàppale si lenn sëñ Moustapha moo ñu wax lii ñun tam ñu jaayante ànd ak moom si liggéey boobu itam sant ak gërëm yàlla yàlla yokk tawfeex yi defal ñu fi nekk ñëpp jàmm ak lépp si barke borom Tuubaa jaajëfal bu wér tur bi soxna Jaara soxna Jaara waaw baar baar laa sant waaw. waaw lan ngay wax ci bis bu tedd bi. ah di kontaan di kontaan ci bis bi. ndax bi ñu yàlla maye fekke ak tal ba ñu fekk bisu sëñ Modou Moustapha bii. Cheikh Modou safaa dëkk ñun ci quartier bi. nekk nit ku baax. fekkoon nag ba ñu juddoo ñu doon ay murit doon ay taalibe Seexul Xaddim nga xamante ne ñun puus mu tàkk rek la ñu laaj. te am na fit bi am na jom ji am na yéene ji. lu ko lu ko bëtam bii may rek fitam bii mën na ko ko du ko ko xañ. moom seex Cheikh Modou safaa muy jàmbaar lool nag nekk ku pasteefu lool booy ànd ak moom sax dangay ngay da ngay amaatu dolleeku ndaxte ànd ak ndax pasteef gi mu àndal ànd ak ku baax nag yombul ndax la xol ba rëyee ak na muy defee boo fekkee yow na mu mel meloo ko yow doo mën a ànd ak moom waaye nag yàlla dimbale nu nag bu ñu nee def leen ñu def bu ñu nee bàyyil ñu bàyyi xeebu ñu benn yoon fii la ñu fekk ci quartier bi Cheikh Modou Moustapha nekkoon ci suñu xol yi di ci yëngu sëñ Tuubaa nekkoon suñu xol yi di ko yëngu moo ko yee lii lii jàmbaar dëgg koy def Cheikh sax a jàmbaar dëgg la chaque jour li may wax rek bëri ko ci mbartal la ku yebul laa te li kii wax ci xaar kenn mooy def ba pare mani la xaarul kenn fii fii dafa fees dell ci biir ba léegi kenn nelaw depuis bi mu sosee mbir meeg léegi kenn dootu nelaw ndax xeebal fi kenn bisam ku fi tànt rek Cheikh Modou Moustapha loxoom dina ko dugal ci biir kon nga xam ne kii nit ku baax la dañ ko yéex a am mais Cheikh Modou Moussa buñ ci amoon ñett ci cité bi dañuy wàcc cité bi waaye nag sant yàlla matale na ko nag barke Sëñ Tuubaa Mbàkke ñu ngi ñu ngi bu wér di ko wax ne liggéey bi nag liggéey Cheikhul Khadim bi dañ koy ànd ak moom ba aljana barke sëñ Tuubaa du ñu daw ñu daay duñu reculer bay boo nag ñu dégg lu ne mm. waaye lijjanti wuñ loolu ñun sëñ Tuubaa rek ñu sax sëñ Tuubaa fër reva rasulullah <laughs> waaw ñu ngi waa sëñ Modou Diop sëñ Modou Diop waaw bismillah lan nga wax ci ñun ñun lañ dénk wàllu waañ bi ñu ngi ziar bu baax tey sant sëriñ Tuubaa bu baax mm. di gërëm sëñ Moustapha di wax ni maanaam lii dafa dafa dafa sedd xol mm. ci képp koo xamante ne sa yaakaar jubloo ku sëriñ Tuubaa ndax waañ wi tey koo gis xam ne lii caaxaan mënu woo def sëñ sëñ Moustapha nag moom war na wàcc na ñun ñoo ci des ñun ñi nga xamante ne ñooñu lañ dénk waañ bi mm. ñu ànd koog suñu mboolem jëwrin ku ci mel ne sëñ Bunaama mi nga mm. xamante ne mooy suñu jëwrin mm. am Diouf mi ne moo yor organisation lépp loo xamante ne sëñ Moustapha waxoon na leen ko ñu ko doxal suñu diggante ñoom def nañ ko ñoom jëwrin wàcc nañ ñun ñun ñoo ci des ñun ñu nekk ci waañ bi lenn rek la ñuy ñaan fu mu ne nii ñu ñaan suñu borom sëñ Moustapha li mu teg suñu loxo te mu doon lu fees dell suñuy bët yàlla na fees dell ci mbooloom ñu teew ci bis bi ñu jëlee ci ay tawfeex ci bàkki Sëriñ Tuubaa loolu rek lañ ci amoon ndax li amoon solo lépp ñëpp wax nañ ko sant nañ baax jërëjëf jërëjëf Bounama ah. bismillahi mina seytaani rajim hmm. yow mbir mi moom xam naa dara lu la ci ump ndaxte ca fondement ba léegi ñun ak yow la ñu sa jëmm ji daa dem ba nuroog lii waaw di sant yàlla rek bi nu Sëriñ Tuubaa andilee ku mel ni sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim mu gëm si bëgg sëñ Ahmadul Muxtaar lool moom sëñ Modou Moustapha moom Xaadim Rasul mu ñëw Ndakaaru Ndakaaru nekk dëkk boo xam ne yaatu na lool moom nag liggéeyal yàlla yonent bi sëriñ Touba rek la fi nekkee tàggat ndaw yi koñ bi léegi defar na ñëpp gis ngeen jataay bi nii jawriñ Muudu Jóob mi doon wax te yore wàllu ndugg mi ak wàllu daral bi la commencé giléem ba ci nag xar bëy naat lépp yi son andi nañ ko soxna ñoom maam jaara ak soxna Ayda. jàpp ci liggéey bi ñoom soxna nday assu defar ko ba mu taaroo ni si demande laa gépp bis bii nag bis bu rëy la parce que dañ koo commencé Serigne Touba ci Serigne Touba rek mhm. moom moo nu ci ñor ñun du lenn kenn daraay kenn lenn ci ñun seriñ Touba ak mbooloom rek ñooñu rek ñu ñor lépp luñ ko bëgg a liggéeyal ba yomal xayam dañuy ànd ak moom dem àjjana mais dinañ ko liggéey sëriñ bi nag nee na kontaan gis na ni ko secteur bi jàppalee mm. nee na bakkanam sax tey buñ ko ko ci laajan jaral na ko def ci biir cant gi kon kontaan na lool bëgg na gis nga ni mu taaroo ak soxna yi nin taxawoo bis bi ñëpp génn nañu la commencé altu ndàngal ma ba mel nii sëñ bi rek laa gis mu koy liggéeyal la Modou Moustapha ngir sëriñ Touba jërëjëf Cheikh ñu ngi kontaan am mbégte yow soxna a ngi ni ay mbiram moom daal mbiram du neen ndax euh, murit saadix la te fondation bi ñi ci nekk nii duñu ay murit kese am na ay tijaan am na ay laayan tarixa bu nekk mi ngi si mi ngi te ñëpp mi ngi ñu ngi doon benn gis nga li fi ne nii ci ci ci cin yii woowul kenn ne leen kaay ñëpp a ñëw seen bopp ndax na muy doxee ndax daa mën ci bésu jàmbur man ci bosam barke Cheikhul Khadim kooku sëñ Moustapha Ndiaye alkarim waxuma ñaaram rek waaye moom moom kese kese mi ngi wàccee cité mi ngi wàccee Fass Mbao ndax li amu ci xaaj seen xeebul kenn xeebalul kenn mm. te looy nekk mu ànd ak ba jeex tàkk ba fin ba jeex tàkk boole ta taalibe yi nga xam ne ngor bu bëgg a dee mm. amul Pastef bu a dee mm. moom sëñ Modou Moustapha kuy ànd ak moom barke Cheikhul Khadim doo doo doo yox yoxal doo yox yoxal boo yox yoxalee sax mu jëm dox ca waaw moo tax dafa ci ngistal dafa ci dara lépp rek ñu ànd ak xolam xolam bu rafet macha allah waaw waaw yal na ko yàlla yokk sëñ Modou Moustapha ñu yàgg ko ànd ak moom comme nu mu koy waxee ba biir aljana waaw ndax moom fu ñuy yóbbu ci diina gi sax dañ duñ koy yëg ñun ñu def ñu dañuy yëg ñun mu ngi ñuy yóbbu ci Cheikhul Khadim mm. yëg ñun mu ci yoonu yàlla te amu ci xaaj ak seen kon jërëjëf Njaay lañ koy wax kon daal am na njëriñ ci allah macha allah lépp rafet na lépp rafet na waxuma la waxuma la Mandela kese ay Fass Mbao laa wax waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. tur bi man maa ngi tudd Fallou Anne. El Hadj Fallou Anne. Mhm. maa ngi sant yàlla julli ci yéen sallallahu alayhi mhm. di sant Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Khadim Rasoul. Mhm. di nuyu nag waa cité bi yëpp di leen sant di leen gërëm. particulièrement sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim muy ku baax. muy koo xamante ni bu ñu amoon ñaar ñu mel noonu ci sébi rek. lu ñu bëgg yëpp dañ koy am. yéene nañ ko lépp nag. Hmm. te lépp la ñu lépp la mën. lépp la ñu jàppale. Hmm. di social lépp daal di def lépp daal def xale yi diine yar teggin macha allah taalibe jërëjëf kontaan naa jërëjëf. tur bi Pape eh, lan nga mën a wax ci bis Pape Maguette Diop lan ci bis bu tedd bi ci bisu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim xanaa di sant yàlla rek di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant sunu jàmbaar ji Cheikh Moustapha Al wax naa ko léegi Al ci bis bi ne ko fi mu toll nii mbooloom ku yàlla bind nga yaakaar sëñ tubaa war na laa fekk si ci bis bi ndax première personnalité ci yoonu murit mooy Cheikh Moustapha Al Karim ndax ku toll ni sëñ ak fi mu toll yàlla su jógee ku toog ci sam doogu ne te Cheikh Moustapha la Sëñ Tuubaa yar waaye Cheikh Moustapha yar ñëpp. Mm. alkarim mii nag. nin ko baaxoo di waxee saa su nekk. Mm. ak mbaaxam. Mm. ak i tegginam ak bëgg Cheikh Moustapha am na ko may lu ne ci àdduna. ndax yow bari na lu ñuy seetaan ci télé bi. yaa ngi moom yéenay toog. nga di ko laaj muy wax ak yow nga di ko tontu. Mm. waaye bis bi daal. ñu ngi ciy sant yàlla bi nu yàlla boole ci bis bi nuy sant yàlla. te xam ne ku ci dikk yàlla doole la. bii de bii ah. moom day wan ne daal. xanaa mën gi daal ku ci lekk bu barke bi. foofu waaw bii xanaa bii de moom Ndiobéni laa ko yéene moom. kon ngeen euh, repérer mbana bi bu baax. waaw bii moom ku ci barkeelu. waaw man man waaw koy yëngalal boppam. waaw te mu lekkal ko boppam tamit. <laughs> Ah, wala da waaw man ak man ak yàlla <laughs> ah. <laughs> Eh, Petit Sow ñu jël mbana bi baax ñu xàmmee ko. waaw tuddi nañ ko mbana 19 dégg ngeen. waaw comme tey la. 19 waaw alkarim yor bii na dem ah. waaw incha allah moom xanaa da waaw moom ay ay ci des yëpp sax nag. waaw incha allah waaw tas fépp. waaw ma nga tas fépp rek. incha allah ñu lii daal day wan yow. waaw eh, OF gi ni wax ci yow. am na ñoo xam bu ñu xewlee heure bii ñu nga ci clim ya ñu nga ci mais ci naaj bu tàng bi ci nit ñi xeeboo kenn ñëpp yaa ngi ñoom macha Allah. waaw waxuma loolu waxuma sax lool waaye ki may defal bis bii. Mm. Ah, wut waruma ko wooteel dara. Mm. dam di toog di dallu di def dara. Mm. kii sama dund gi laa ko jox. mu Cheikh Mamadou Moustapha. damaa jaayante ak moom dee. mooy sama dund laa ko jox. liggéeyal ko lépp la ma jaral. lépp la ma jaral sama bakkan la ma jaral. nit nag lu ko jaral bakkan leneen jërta wax. ko def lépp ci biir bakkan. Cheikh Mamadou Moustapha nag sama bakkan laa ko jox moom laa jaayante ak moom waaw parce que de leer na naññ na wax dëgg yàlla <laughs> waaw ndeysaan moom ngay wax guddeeg bëccëg suba ngoon mu doon sa yitte waaw waaw anima anima ma nga yëkk dam na ci dam maa ko yëngal ndama mbana 19. amiin amiin Tektal TV yéen a ngi gis euh, Alkarim ci bisu sëñ Moustapha Ndiaye Alkarim 19e édition fii ci Fass Mbao cité Mandela Alkarim a ngi nii euh, nekkul ca kilim ya nekkul ca kii mi ngi nii ci mbana bi di yakkal boppam. di def pour bernde jaam ñi li naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi euh, te wax dëgg yàlla ba mu jóg du léegi bis yi bees yëpp da ngay dégg ñu naan deuxième édition troisième édition mais dix-neuvième édition kon kii de leer na ba mu jóg du léegi. ba ko yàlla ñor maa nga ca daara ja boobu ba muy nekk ca daara ja nga jóg la laa jógoon di liggéeyal Cheikh Mamadou Moustapha macha Allah waaw ba muy nekk ca daara ja laa ko tàmbalee cant gi xaddi doo tey 2003 2003 waaw 2003 laa tàmbalee woon avril 2003 ko tàmbali avril. avril 2003 hmm? waaw. boobu de xanaa métti woon na yombul woon ba mars deux mille vingt deux. ba mars deux mille vingt deux. waaw. incha yaa ngi def ba deux mille cent soixante dix. waaw amiin ah, wala cent soixante dix jege na ñu dolli. waaye tey 2180 yu ànd ak wér ak wér le moo tax bis bii ren lépp luy daganaa rey rek rey naa ko li ko tàmbalee ginaar ba ci gileem ba ci nañ ko ci bis ne yow booy def ñenn ñi dañuy indi bureau bu dañu dugg fa joxe enveloppe invité naa diw mais yow da ngay invité doo def soutien yaay defal sa bopp de xalaatu ma koy bàyyi dama koy ne mënatuma sant sant mm-hmm, da sant kuy sant da am la war a sant ak cant mm-hmm. akub teeraasa yam ku dem akum ñaareel deesu ah. deesu yaakaar ndimbal dootusi ko yaakaar bay ba nga bàyyi ko xam ne mën a googu kon daal yow maanaam da dem ba sës daal ci mbir ah, mu jaral la lu ne ah. bokkoog ñi nga xam ne dina euh, dinañ soof ministre yu bari dinañ soof directeur société yu bari dinañ soof député yu bari ndax dañuy jël seen bis au lieu que ñu def ci bis ba mais bis baay far def ci ñoom ndax ku ne ko ñu ne yow lañ ko tuddee ku ne lii mais moom daf la yëgal mm-hmm. boo ñëwee aw yiwa fi am ngeen bokk ndax gis nañ tamit sa bés ay folklore yëpp duñ ko ci sentir maanaam dëgg rek leen fiy ah, gis ak lu jëmmal sëñ Touba ak sëñ ah. Modou Moustapha ak njaboot sëñ bii nag sëñ waañ waañ un moo nekk nii waaw fi lañ toggee añ yi léegi nag ñi nga xam ñoo jëm ci wàllum yeneen reer kilifa yooyu euh, waajur yi ñoo koy togg waa Mandela suñu mag ñi daayira maam jaara yeeg ñoo koy togg mm. dama bëgg ngeen jàll ci ñoom waxtaan ak ñoom jël leen foofu incha allah ñoom ñoo ci wàllum gàtt yeeg yooyu d'accord incha allah kon ñu ngi dem ci beneen waañ jërë ngeen jëf mbokk ba léegi ñu ngi ci 19e édition Euh, màggal Fass mbaaw bii di sëñ Moustapha Ndiaye alkarim di ko amal di cantam yi nga xam ne que moom yemalul dara sëñ Modou Moustapha ak kenn mu teg sëñ Ahmadou Mokhtar fu sori teg ko fu kawe bésam nag mu doon bés boo xam daf ci sonn du bàyyee kenn lenn day def ba pare woo nit ñi ñu am sàkku si aw yiw mais bokkut ak ñi nga xam ne que bureau bu ne ñu dugg fa soutien kar jaaw ji jàppale ma fii jàngam yi ci lan lay mere wala ci lan lay gërëme xew bu xaw a nuroog folklore ak pol pokore moom deful yooyu dafa ñëw Fass Mbao Cité Mandela nekk fi nekkin bu rafet dëkk fi dëkkin bu rafet euh, di jàppale nit ñi ci wërsëgam lu mu man jàppale leen ci diine ak taalibe xale yeeg mag ñëpp wekk ko jox ko cër bu baax a baax ñi nekk ak kii nag ci beneen waañ bi bi ñu jógee ci waañ bee euh, soxna Oumou si nekk fi waañ bi nag <laughs> xam naa mooy <laughs> waañu VIP affaire yaa ngi may dugg xam la ma mi ngi may dugg may sëqat en direct noonu ah waa ñu VIP la yi nga xam monsieur yeeg yi baax ci njaayeen yi moom soxna Oumou Sy loolu la géré bu baax a baax naka fii ba métti ginnaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun man maay soxna Oumou Sy ñu nekk ci waañ bi waañ bi yor mbir reer yi ginaar yeeg michu yeeg tufe yeeg yooyu daal vermicelle yeeg yooyu hmm. waaw ñun sëñ Moustapha hmm. bokk naa ci ñi nga xam ne nii booba dëkkagu fi. Hmm. bokk naa ci ñu ko ñu mu njëkk xam. Hmm. boobu dafi daan ñëw ci bitig bi di jënd si. Hmm. mu dëkk fu xaw a ci beneen cité ba nee ñu xamante. bi ñu xamantee nag ñu tëyante ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba. taali ma gis si taalibe ci moom gisu ak yar mu bëgg sëriñ Touba nag yemale kook dara bëgg ko ba mu jeex tàkk. ah ma def taalibe rek man it moo tax ma def parce que man mun naa la wax ne la. lu ma lay fekkale mooy man 2016 laa faire iji. mun naa wax ni Fernand ginnaaw yàlla nag moom moo taxit hmm. ndax moo fi ubbi daara moo fi ñëw ñu dëkk lu hmm. jàkkaarloo hmm. mu ubbi fi daara indi fi jàngalekat ma woo ko ni ko man de damaa bëgg a jàng man de jàng naa tubaab waaye jànguma mu ne ma ci yow la des ma ne lu may fay mu ne ma dara bu di ma fekk si ci biir kër gi di ma jàngal ba tey may toog di yor sama kaami di jàng di jàng samay xasida kon dañoo ànd ngir yàlla yonent bi ak Sëriñ Tuubaa la ñu àndee mu jël wàññi ne édition bi mu ko commencé dakaar ba tey naka jekk maa ko yor na bu ma fekkit lu ma nekk daf may wax ni nga ko yore woon noonu nga ko yore mag ñeeg koñ bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nag si ma ñi ne ci xol yi ñi ne ci ñi nepp ci lépp la ma ma ku am la kenn ku ne day wax at mu la mu la joxoon ba tey noonu la ko joxe yéen a koy téyewaat ñoo koy téye ñu ne ci wàññi rek di ñaan yàlla rek hmm. ko commencé ci bismillah ko ci alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant sëñ bi xaaral soxna Oumou Sy da nga wax lu am solo Euh, ci sëñ Moustapha Ndiaye al Karim li ma naan jëlul wër wërsëgam rek yem ci mais da cee boole taalibe gi yar gi teggit gi ci parce que nit ni mu nekk ci dëkk di defar muy baax ku dëkk ci dëkk tamit di yàq nii la nit ñi musloo ci moom naan kii bi mu fi ñëwee ba léegi mi yàq xale yi mi ngi indi problème xeet yooyu. li ma gën a neex ci wax bi mooy 2016 nga commencé jàng ba far iji di jàngal sa boppam alxuraan ak xasida te ñun ngir yàlla yéen ñi jiite suñu réew mi. ak ñi ko bëgg jiite am leen Pastef tuuti ci diine parce que tamit bu dee ñi yor ndomb tànk yi gën a rëy ci réew mi mënuñoo tari Fatiha bu leer koor gi ñu di leen di tariloo yenn yi ñuy def yenn penalti yi loolu moo lay wan ne même boo jotee ci réew mi tamit yow pareegoo pour defaral diine dara jàng du wees far leen farlu leen ci alxuraan farlu ci lu baax ak diine bu ko defee nag liggéey tamit bokk ci ak am ay principe yoo xam ne que lu baax lay doon mais sa mbir yëpp doon loo xam ne que mbirum àdduna la tamit loolu bu yàggee du baax ci réew quoi kon jàng du wees volonté la ngeen gëm ko bu baax a baax euh, soxna Oumou si gis nañ Pastef bi nga àndal jàng nasaraan ñëw jàngaat ni ba far ijji ba mën a demal sa bopp loolu Pastef la dañ lay ñaanal mu gën a barkeel bu baax a baax ñaanal alkarim lii mu ci def loolu teyaabal la boo xam amul fu mu jëm ndax foo jàngee di ñaanal réew mi jàngal ñaanal ñu bari loolu aw yiw la te alxuraan moom lu ko solo amul fen léegi ci biir waañ bi Euh, ñi nga mën a tudd ci ñi lay ñi nga bokk liggéey bi nga xam di nga mën a gërëm ni ñi ay jàmbaar lan nga tudd tuddaale ñi des nga ne gërëm ni comme lim mënu nekk mais comme yaa jiite waañ bi te ñoom ñëpp am nga ñoo fi nekk. waaw am na fi ñoo xamante ni depuis ñu ko commencé édition ba tey. Hmm. maak ñoom ñoo koy ànd muy comme ñoom Ndeyloo ñi. Hmm. ak maire Dagga. Mm-hmm. mii ak Awa Gadiaga. Mm-hmm. ak ñoom Fari Ndiaye. Mm-hmm. ñoom ñëpp ak euh, sox am na ñoo xam ne soxna yoo xam ne Al Karim dafa kii dafa woote tey. sëñ Abdou Karim. ndindi na ñoom doon nañu ñëw am naa sama xarit boo xam ne tamit dafa jóge ba fii na Kër Mbay Fall. dañoo fasante kóllëre màggalu poroxaan ren kese. mu gis ñuy passé annonce bi kese mu gis ko mu yeema ci guddi ni ne ko ah, ne ci wàññi ci ginnaaw ne moo nekk nii kii ci kuddu gi nii tey ci kóllëre bu ñu fasante poroxaan la ñoo fekk si ma tey jàppale si ma hmm. ñoom Mère Ngoné Ndiaye ak hmm. ñoom Tànday Fall ak mhm. ñëpp ak ñoom xujja ak laaya ak ñëpp mhm. ba tey ñoo fi ne di ma raxasle ginaar yi presque ba guddi lañ fi jóge mhm. tey ñu ñëwaat di ñii ne ci soble si ñi ne ci pombiteer yi ñi ne ci lépp daal kon ñoo ngi gërëm dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla génn nañu mag ak ndaw cité Mandela yëpp koñ bi ñëpp génn na ku ne jàpp ci ngir yàlla yonent beeg Serigne Touba comme la ñu àndee moom kon ñoo ngi ñaan rek yàlla nañ ko yàgg def ay ati ati at at gërëm sëñ bu baax a baax masha Allah jërëjëf soxna Oumou Sy jërëjëf mbokk yi nekk ci deuxième waañ bi nga xam ne mooy bu VIP yi nga gis euh, ñu sant ñoom ak set ak taalibe ak juboo ak rafetal lépp kon xewal la bu baax a baax a baax alkarim yàgg fi te wér yokk sëñ Amadou Mokhtar yàgg fi loolu te ànd ko wér euh, sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér ak képp lu bëgg ku bëgg lu baax ak tamit sëñ Modou Guèye Gandigaale yàlla na yàlla xaare ko àjjana te taas ñu ci barkeem te aaru njabootam gis nañ ni ngay wéyale kóllëre bu baax a baax ci lépp lu baax gis nañ ne ñoom Cheikh Baara Ndiaye Khadim Jinne euh, sëñ Abdoulaye Diop Xaas maanaam ku ku bëgg a lim rek da ngay juum alkarim daal bis bi sa bis la euh, te fonk nga ko te nit ñi fonk nan la kon yàlla na yàlla xeb dolli ak Tektal TV ñun euh, bisu alkarim duñ ko yemale bu baax a baax di ci jël ndaare déedéet jël pee lan man moo tax lu baax lu mat a dinañ ko fésal ngeen toppuñ ci Tektal TV a Tektal TV Alkarim nitu ku am kóllëre la. Euh, nit la bu am Pastef euh, Alkarim daal du kenn Cheikh Bara Ndiaye lekk na lekk yi Alkarim lekk na lekk yi Ndiaye nii nag ñoom ay Ndiaye lan ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax baax mais lii mooy. wan ne sëriñ si wenn say lan dañuy ànd di xàccandoo di dóorandoo kuy dugg seen diggante di wax nanga wax loo xam ndax fa ne daje doo ko xam kon nañu yor puso di ñaw lépp di rafet te dara di bañ di ñaaw ànd ak équipe technique Tektal TV docteur Wade Baye Massamba Diop euh, Petit Sow soxna May Diop réalisation bi ñu dem ñëw waat leen laneen Samba sax mi ngi fi Samba Amar ak Fadel jàpp ci liggéey bi côté yëpp bu baax a baax a baax bésu alkarim kon ak euh, Fass Mbao 19e édition dara du leen ci ump ak tegtal. maaleykum maire Ridial yow namm naa la gis yàgg na. maa la raw maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. xam naa ne wunu hmm. waaye la alxuraan wax maa ngi koy dund ak yow. ndeysaan alxuraan dañu alxuloo bu tatra. Hmm. saa yi moo xoolee télé bi. Hmm. gis la. ngay wax ak gars yi. maa ngi wax ak yow ci biir di la ñaanal. barke Cheikh Mouroum Saa Fall. ma yaakaar sos Tektal TV sa kanam. waaw ndax ah, waaw ndax lii dafa yàgg. xam naa ne déggumay tubaab mënumaa wax année ba sax. waaye yàgg na. 2018 la woon. waaw Cheikh Moussa. alkarim mii. ñu tuddee Cheikh Moussa. mu Serigne mu maam Moroon Tassali. maam Balaye sax mu maam Mbacke mu maam Maram. mu maam Abibulaay Mbacke. ku neex a waxal ci Moustapha laa. yow ku neex a waxal ci Moustapha nga. ndax lan. Hmm. ànd bu doon dëgg. macha allah xam na ne hmm. démb la. bi may ànd ak Moustapha. Baye Saliou Baal woo ma ni ma xale bu tuuti daa jóge Touba. xale bu ndaw la nag. ne dafa liggéeyal si Serigne Touba moo ko tax a jóg. yónni Abdourahmane sama doom ne ko demal wol ma sa yaay. ma ñëw muy bisub alxemes. mu ne ma jëmm jii laa dénk ma ne ko ah mu ne ma tuut tànk bii Touba la jóge te liggéeyal sañ Touba ko tax a jóg te Serigne Saliou Mbacke mi ma uf ma boppam nee na ma nañ ko jàppale dama ko bëgg a utal ndey te comme yaayi ndey Baye Fall yi damaa bëgg doon ndeyam ma jël Moustapha ndeyoo ko ndekete yoo lu dellusiwaat la. ndekete yoo seex lu dellusi sama loxo la. lu dellusi sa loxo la waaw waaw. moo ko mën a teqalee noonu. waaw maanaam li tax ni ma ko mën a teqalee. su ci xajee danaar la ci yemal tuuti ndax wéeru ma damaa tëddoon sax ñu ma seex ñëw na ma yaa tax a dikk ma ne xaar ma dem seet sama doom. pour waxtaan ak yow tuuti. seex Moustapha ñett ko dal. Mm. ñett yi ko dal. Mm. moo ma dal. Mm. seex Moustapha ñett ñi dañoo jógee njare di ay soxna bokk benn baay. kenn ku ci ne dem samp bàyyi fa kenn ku ci ne di sosi ci Cheikh Moustapha Al Karim maam Seynabou Ndiaye moo njëkk dem kër Amadou am fa Seera Fall ñu bari xam nañu yaay Cheikh Ibrahima waaye xamuñu waayam Amadou Fall la dem këram am fa Cheikh Ibrahima ak maam Saliou kookee di maami Moustapha jóge njare maam Borsa Ndiaye jóge njare dem kër kër te dee calaw dem ba Borsa maa bu mu dee ne borom wali la moo saamaam fekk ko dégg nga de dee teraw de ba borsa moo sili yu ñu ci ndar géej wax ak ñoom hmm. moo dekkal na dara ak ñoom di maami Serigne Cheikh Moustapha Ndiaye mi alkarim tey hmm. jóge ca njare hmm. maam Cheikh Issa Dieng maam Aram Ndiaye waay juram jógee ti njare jóge njare bi mu jógee njare yàlla dogal moom it mu am fa Cheikh Issa Aram Ndiaye Cheikh Issa moomee nag tabax jumaay njaareem mu jur jumaay Touba jumaay Touba kon nañ ne ni Massalikul Jinaan mooy satu mooy satu njaareem barke maam Seyra Fall waaw lii kenn mënu ko bañ a wax Cheikh Moustapha manam yi xam na ne xam na fu mu joge mana ya ma nga Njaasaan mana ya tubaarkàlla masàllaa ma nga Touba Fall ma Daaru Fall mana ya tubaarkàlla masàllaa yal nan yàlla fal cet mana yaa nga ca njeenneeg lakan waaw moom la Serigne Touba ne woon maamam demal lagan dinaa la fekk si ak li gën seen bu soxna Balla maam Ndiaye waaw loolu mun a bañ a ñàkk seex seex Moustapha ñëw mm. bi seex Isaa noppee daa geestu saama maxtaar tey fan na ko maxtaar mu ne mbàkke mu ne maxtaar mu ne mbàkke mu ne maxtaar mu ne mbàkke mu ne ku tedd kii day am na lu mu ngurum mm. mu ne lu mu mu ne na yow maxtaar tey for mi nga yëkkatil ko waxtu woo jaam yi ñu kàbbar julli saa maam woote di bilaal Serigne Touba bi mu wootee maam maam ah, maam bi mu wootee sunu maam Afia Mbakke di jiital xaadimal Moustapha ci njaareem boobu kenn xamul Touba dana ma waaye Moustapha na dund waaye waaye Cheikh dundal Cheikh xam nga tax may ñaan nga dund dangaa am jom dangaa am ngor danga am personnalité dangaa amuk yëg dangaa bëgg sëñ Touba dangaa faale jaam ñi te sëñ bëgg yemul rek ci Cheikh yàlla nga gudd fan yàlla nga wér Moustapha nag jara boot moom jara boot moom jara boot moom njoko njal mm-hmm. njoko njal Amadou Mokhtar merci beaucoup merci beaucoup foofu laa jëm li tax merci ji am su ma paree Moustapha xam ne ne Daaru Xuddoos rek lanu mm. Moustapha xam na ne Daaru Xuddoos rek lanu xam na ne Daaru Xuddoos rek lanu mu jël bés bii nag dem teg ko fee bés bi ndaw na de mm. am na lu gën a rëy bi aslamtu nafsi lu ma am jëlal Cheikh Rafal maa ma ko xoon sëñ Touba hmm. mu ne Cheikh Modou Makhtar lu ma am jëlal lu ma jur jëlal ku ma xam jëlal ku xaritoo man jëlal ku yëg li ma yëg jëlal kon wàcc na a ah, maam jaara baal a ah, maam jaara am jaara baal hmm. yow xam nga ne Moustapha wàcc na Moustapha rek lañ ti Moustapha Mountakha Mourtala junjug a ca Màkka mu delloo junjug yi ah Moustapha njoko njal merci beaucoup merci beaucoup thank you very much Cheikh Modou Moustapha good good good good so dukk dukk xel yomb yomb xel waaye mes moo jaaxal gaa yi te jegeb gaaraas taxu ta bëri gën ko wàcceg sab saak am nga foo jëm doomi diw fexe doon diw ba doon ràkkal ba ku la suur ku la ku taxoo yow regg Cheikh Moustapha Al Karim bi muy ñëw Fass Mbaaw as la andi waaye léegi bi mu wootee Fass Mbaaw ay wëli su fiy fekk ak i mbokkam la ko may nag mooy jukkoom ak xam lan ko yare woon xam ndigal la ko sëñ Ahmadou Muxtaar joxoon ngir mu ñëw Fass Mbaaw liggéeyal yàlla ak yonent bi te dañu wax ne xayrukum man ta'allamal Qur'aan wa 'allamahu Cheikh Moustapha Al Karim defar na jukkoom ba ku joxasoog moom dootoo ko bëgg a bàyyi sama yaay ji li mu wax léegi ndakaaru la juddoo fi la yaroo fi la màgge liggéeyal sëriñ Cheikh Fall bàyyi góor liggéeyal sëriñ Cheikh Ndigal Fall ba lakk ngërëmam waaye bi mu ne dann Cheikh Moussa Ndiaye al Karim doomam ji xam na ne doom ju am jom a nii doom ju bëggul baax a ngi nii doom ju am valeur nii doom ju am qualité a nii waaye doom ju mën a jubbanti doomu aadama ngi nii nit nag da mark marqué sa empreinte ni da ngay manqué marqué sa empreinte. waaw Karim di def baax. du duy saa waaye wër nañ frontière. seex yaa ngi Sénégal. waaye sa mbaax gi. ak sa yaatal gi ngay yaatal. site internet bii. daj nag àdduna kap te lu baax rek ngay wane. Cheikh Moustapha loolu la def. daa dikk Fass Maaw liggéeyal fi yàlla wéetal fi yàlla genn si jaadaam benn pajaasam benn kurusam genn satalaam loolee moo ko may lii mu am tey jii fii si Fass Mbao Cité Mandela ba maa nekk fi ñu ne Cheikh Modou Moustapha kon nit fu man a nekk na am jom tey ji nag la bisub sëñ Modou Moustapha. 19e hmm. édition. 19e édition. boobaak léegi du léegi. Hmm. bu doon ay caaxaan ba léegi bàyyi na ko. Hmm. bu doon lu mu gëmul ba léegi bàyyi na ko. bu doon lu mu mënul ba léegi. wut na si wàllu. te du dem ci bureau yi di joxe enveloppe ak ay xaaral ak ay soutien jàppale ma ak yëpp mooy demal bopp. ñun ndakaaru leen dëkk. man naa ne ñoo ngi Touba waaye ndakaaru dara ump nu fi. bari waana kuy def bis. bala ngaa def bis ba. da am ñu la jëndali nag. defal la lay dem si bis ba yëpp. nga def junniy leetar. topp topp bureau yi joxe yëpp. doo ko def bis ba. waaye moom at mu jot. balaa def bis bi day génne ay millions la jiitu ngay wax daa di ànd ak ku mu am ak lu mu am waaf ci kanamu sëñ Ahmadou Muxtaar ne ko yow laa yaakaar adduna ak allaaxira lu ma am yow la nu ma mel yow la fu ma yegg yow la lii maa la ko jox addee bis boobee may defal sa baay ba nag laaj laaj si ndigal sëñ bi jox ko ko avant sëñ bi di ko jox fekk na lu mu si war a def maa ngi si poosam waaye nag mu ànd koo ki gor nag ndax bu àndoon bu amoon i milliard def ko si bis mm-hmm. te ànd koo ñi ko war a àndal mm-hmm. bis ba dana sooxe mm-hmm. te dana des gor ñi ñooy ñan waa Fass Mbao gor ñi ñooy ñan waa Cité la gor ñi ñoo yi ñan mooy taalibe yi Sëñ Bàmba yi nga xamante si ne danoo nekk ak moom fii bu yëkkatee ñu yëkkati bu tegee nu te mu teg barke Sëñ Tuubaa bu génnee ay junneem wala mu génne ay millions ñooñee ñooy génne seen i junni ñoom itam wala seen i ñaar téeméer wala seeni téeméer xotti seen i déguisement daan ne ko doo dem mukk banu mu ne leen man itam du ma dem mukk baleen la Serigne Saliou waxoon. moom it mu ñëw oyof ñëw ànd ak ñoom ba ci waa ñu teg. barke Sëñ Touba boobaak léegi yaa ngi ko gis ma ngi jaabante mm. te bari waa na kuy def bis. Mm. day laal foto mm. laal jànkat laal kilim. bala nga koo gis rek yow da ngay waaye nag moom ma ngi si waañ maa ngi si xolli bi maa ngi si nag yi ma ngi si lépp moom li ko ñor daal mooy ak taalibe waaye nag sëñ daar wasen mooy sëriñ daar wasen mooy maamam te kuy jàngale ak murit fii si yoonu boo bokkee sëriñ daar wasen mën nga koo jàngale moom ab baay faa la ko ñor ak taalibe moo ko ñor gëm sëriñ Touba moo ko ñor ful la fayda ak gëm sëriñam te nangoo liggéeyal toolu lislaam bi ñoo ngi ñaan daal bis bi yàlla nay doon cent ans yu ànd ak moom te mu ànd ngërëmal sëñ Touba barke xaadim rasul li nga ci xaadim jëlal te sëñ xaadim li nga ci xamul démb daf ni ma soxna jaara kaay leen dem marché yëkkati xaas bu bëri jox ñu ñu dem marché xoolal loo wax rek mu ne lépp a ngi ci fi man li ma gën a neex dafa ñeme dafa ñeme risqué barke sëñ Touba xoolal lépp loo ko laaj rek mu ne lépp a ngi ci poose yi dawul dara lépp mat na loolu moo ma gën a neex ci moom te yor na jikkooy borom makkaari man ax laa nag koñ bi ñëpp ko wuy si ndax ñi ko wuy si dañ ko war a wuy si nag ndax bàyyiwu fi kenn képp ku fi sa muus juróon sax boo ko mu ñëw am muus may dox sa kër bu juróon sax boo ko wooyee mu ñëw boole ko poosam seetaanul kenn ku fi takk jabar mm-hmm. mm-hmm. def na ca ku fi ngénte def na ca ku fi ceetal def na ca goree tax muy fàttaliku Seynabou Gueye mi mu denc ci àjjana barki démb ñaanal ko mm-hmm. teral ko defal ko bisam ba mu ter bu mu toogee plateau mm. danañ ma ko ñaanalal kon waroon naa fàtte kim gisatut Moustapha fàttewul kenn mm. ba ci sëñ Modou Gueye Gandigal ba ci sëñ Modou Gueye Gandigal Moustapha mm. kon fàttewul kenn ku fiy dox rek def na ci yow muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw man mi ko tàmbali woon ak moom yor ko muy tuuti ba mu toll fii rusuma de te noonu na ma jàkk ne ma yaay doo rus doo masa rus doo masa am gàcce waaye nag gayndee njaañ bara wàcc doomi gaynde la i Ibra maamam moo feeñal sëñ Touba jër ñuy tey mooma ah. kon daar Xuddoos Daaru Xuddoos mm-hmm. Daaru Xuddoos Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Daaru Xuddoos waaw déggoo ma de waaye kontaan ci sama doom waaye waa Mandola dund leen ah, dund leen waa Mandola dund leen te wér téeméeri at di teg ñaar fukk ak ñeent ya sama maam amoon wér ak wér léegi yor ak yor le waaw ci barke maam Moussa moo toog ci jotaay bi da delluwaat di sant Serigne Khadim Mbacke ibnu Serigne Soubeyru maam Thierno Ibra Faty borom Daaru Al Moxti bi nag bég na te kontaan na te gis na it yëg gi ak jàpp gi ndax mën nañ ne depuis ba bis bi teroo ba tey saa su ne mu ngi woote di soññe di wax ni nañ ko waaj kon nag sëriñ bi moom mu ngi waaj bis bi te lu ko ñor la te mën na ne it saa su ne mu ngi koy waaj ndax heure bii daanaka fekk mu dem daaru almoxti kon nag mbàkke sëriñ bi daal mbégteem ak jàppam bis bi incha allah rabbi bu guddee rek incha allah danañ ko gën a xam ci kàttanu yàlla kon sëriñ bi bég na lool di yeesluwaat nag di jégaluwaat ci kàddu yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waat ne ne moom waajuram sax tey bu ko woowee bisu sëñ Moustapha bii ne ne yëg-yëg gi mu am te xam ne ne waxal na ko ne ko damaa am yéene ci yow tudd la bis waaye soxluwuma ci dara nee man xam na ne sëñ bi soxlawul xaalis de ndax te lépp man na ko ca def na ko ba avant kenn di ñëw nee na nag yéen a jooju mu am tey képp ku la xam ne màggal ak maam Thierno bu ñëwee ñëpp seen xel Daaru Musti lay nekk nee na taalibe yeeg ñëpp ña am na ñu mu ñu mu yónni mais ñi mu desal fii ëpp fopp loolu nee nag loolee mu bàyyil maam nee dina ko nangul sëñ Moustapha ngir baax gu mu baax gore gu mu gore yiw gu mu yiw ak nu ngoo sonn ci doomu aadama te soxla lenn te ne tey lu mu am tey nee laa biir ak baax ak ak taalubee ko may dana soxlawul dara de waaye nag lépp lu mu man a àndal bàyyi faal yeeg tey daal nee na jël na jël na jël na jël na juróomi juróomi kaar ba juróom benn képp ku mën a àndal képp ku mën a àndal ci liggéey Serigne Touba bi parce que ku ne xam ne ne maam Thierno Baye Fall ab Serigne Touba la ne noonu la jaayante ba kanam sax man na ko cee joxe tey nee nag incha allah mi ngi ñaan ci bis bi mi ngi ñaan ci doolay maam Thierno di ñaan ci doolay maam borom yëg-yëg gi sëñ bi am ci moom ba tudd bis bu yëkkati bis bu toll nii tudde ko ko nee na tey dina bu ñëwee sëñ bi dina xam ne kon fonk na bis bi trop loolu sëñ bi yónni léegi sax jàmm gën bi ñuy ñëwaat mu woo jëwriñ mi laat na ko neel sëñ bi de tey mbégte mi ma am ak bis bii ma tudde aw ma beneen bu ma beneen bis bu ko gën a kawee ci man waaw loolu daal euh, sëriñ Xaadim euh, Kamal moom moo nu ko digal euh, rakki Cheikh Modou Kara Géejawaay waaw am na fa mbooloo trop loolu daal mujj wax ci ay kàddu yu rafet ñooy salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi dama naa ko jot li taalube yi kon yàlla na sëñ Tuubaa àggale yëpp lépp lépp dina leer jërë ngeen jëf. waaw sëriñ bi ñu ngi jégaluwaat bu baax kàddu yi soxna Maguette mi nga doon seere ci moom léegi seen diggante moom it mooy delloo ay kàddu yu cant rek ngir seen diggante rafet bi mu rafet ndax nee na way juróom yi nga xam ne moo ko jur bi mu tëddee hôpital. nee na jugoo ci di ko nemmeeku sa loxo jugu ci say ñaan jugu ba ni mu wàññeekoo nga ànd ak man mii ñëw këram jaale ko yëkkati tarago yu bari jox ko borom këram nee loolu jëf ju la ci moom nee na nga koo jàppee lu ndaw waaye nee na loolu dafa nekk ci xolam mu jàpp ko lool de di ko yëg saa su ne leneen la te dolli ko nee na jëmmam ji moom it sëriñ bi nee na soxna Maguette nee na. amul lenn loo xam ne su nii ba nga ko jàppee ba léegi doo ko gis muy ñëw ci moom te doo ko fanq yaa ngi koy ñaanal ci jaayir di ko ñaanal ci baatin lépp lu soxna màgget nekk nee na bi ci nekkee bi nga xamante ne moom ba léegi moom xam na ni am na yokkute bu baax a baax soxna màgget nee na bi nga ko jàppee ba léegi moom xam na ni yokkute am na ci moom kon nag sëriñ bi nga dellu koo ñaanal bu baax ndax kat nit buy jëf lu baax di ndaw na nga ko ñaanal yàlla gën koo yokk kon sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal bu baax fii nga nekk yal na garaat yi gën a yokk lool di ko Seexul Xadim sa digganteeg sëriñ bi yàlla rek moo ko waral te yéen ñaar yéen a ngi ànd dox jëm ca yal na yàlla dëgëral ko leer bu baax a baax ci barke Sëriñ Tuubaa مختار بلا مزيد salaam démarche bi kilifa yëpp ñi ngi ñëw bu baax a baax a baax a baax kon alkarim mooy dugg si nii. du ma soo ba dee. tey tey sax lii lan la. ñëpp ñëw na lii lan la. sëñ Moussa nga ne verbe balaa bi lan la signifie. l'islam l'islam l'islam l'islam l'islam yi borom Touba nag l'islam yi borom Touba muy liggéey lu leer nañu bala ngaa doon ab murit da nga doon ab julit jaamu yàlla l'islam is. Allah akbar rek. Amadou Makhtar sant rek sant bu lii ëpp na trop rëy na trop liggéey rek solo ak taalibe ak gars ak journaliste rey na xalam rey na bëy yi rey neex na ñoom Cheikh Talif képp koy bulut général journaliste yi ñëw na muy Cheikh Salif lépp leer na fii ci na Mandela tey lépp la Serigne Touba ñun du leen ni kenn daraay kenn dara ñoruñu Serigne Touba Ahmadou Maki mu tedd mu sell ma rek ñu ñor ak Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim sëñ moom sëñ kontaan nañu baax a a baax euh, mbokk yi ñu ngi nekk ak euh, borom sarax yi leen naan sëriñ si benn saylan dañuy xàccandoo di dóorandoo euh, mi ni teew ci bisu sëñ Moustapha euh, ci bis bu tedd bi ren di 19e édition ak Pastef bi mu am waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah. euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ah. di am kontaan bu baax ci bis bi ah. waaye dafa nekk bis boo xamee ne kenn la ci ci ci Al Karim Euh, mu nekk mu nekk euh, nit koo xamee ne. Mm-hmm. nit ku lu nit ku bëgg lu baax la. xëy na ba ñu xamante yeggul waaye. Mm-hmm. saa fu mën a mm-hmm. toll rek dina ma woo. di waxtaan ak man di xool nan la sëriñ yi mën a dajale nga gis ne loolu nit ku baax rek ko man te muy nekk mu nekk nit koo xamee ne nit ku nangul doomu aadama moo tax dama koy ñaanal yàlla ba lépp loo xamee ne bëgg na ko yàlla na ko yàlla defal te te li tax mu li tax muy def lii yàlla na ko yàlla defal ba nga xamee ne nam ko bëggee rek mu amee ko noonu waaw macha allah kon nag loolu dañ koy sante yàlla bu baax a baax maanaam dañuy wane ne lii mooy wane ne Sénégal benn bopp la maanaam kenn mënu koo xarñaar ndax boo xoolee ñi fi toog ñëpp ñëpp daanaka jëmm moo tax ñu ñëw fi kon nag loolu sant yàlla la waaw hmm. ah, di ko ñaanal yàlla lépp loo xamee ne bëgg ko yàlla na ko yàlla defal son kontaan nañ baax baax wax dëgg yàlla kontaan nañ baax baax baax gisan maa la nuyu baax baax baax borom baax nga sun lépp gisan da nga bëgg couleur bu bleu xanaa bleu mooy sa couleur waaw <laughs> ah, bleu ki ci nekk da am ay couleur hmm. ah, xëy na man bos couleur euh, bleu la mais am na ci ñoo xamee ne euh, ñoom seen bos weex la wala wala zone waaw waaw moo tax daanaka moo tax ñu bokk gis <laughs> baax kon gis ngeen kon alkarim suur na ba jox njóobeen ya ah? fii moom wax dëgg yàlla bu fi ñëw da nga lekk da nga lekk ba suur di lekk ba suur di lekk ba màndi ah, Cheikh Bara jeexal ko jeexal alkarim du ko jeexal non du ko jeexal déedéet ko jeexal sëñ Cheikh Ndiaye Ndiaye du ko jeexal déedéet déedéet déedéet ah sëñ ji li ku mën a boo liggéey di lekk ba suur di nga ba màndi masha Allah kon alkarim xont na kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax alaakim nee na suur na te Diop la sant ñun joob la sant sa ñun ko sant Diop lu mu coob daf koy Diop. kontaan nañu kontaan nañu baax a baax a a baax a baax. nga bokk sëñ Modou Moustapha doon koo xam ne que defar na liggéey lu rëy ci yoonu Serigne Touba kii di sëñ Moustapha Ndiaye al tey mu nekk fii ci Fass Mbao am ren 19e édition nga teew fi li war a sa teewaay ak yéen seede nga ci mën a wax ci bis bi. alhamdulilah wahdahu wasalaatullahi wasalaamuhu ala man la nabiya baxdahu saydi kulal arabi wal ajami mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf xam nga sëñ Moustapha Ndiaye alkarim sunu borom danoo boole ñu bokk Cheikh Moustapha bokk sëñ Ahmadou Muxtaar ne xalifa Daaru Xudus woote bis ñu teew ci ngir suñu digganteeg Cheikh Moustapha waaye suñu digganteeg sëñ Moustapha alkarim ndax moom tabarkàlla bëgg na Cheikh Moustapha ba ràññi ko ci ba ñu xare bari xam ni adresse am mooy ku bëgg mu Moustapha loolu nag bu ko taalibe amee nga di mbokkum taalibe ni moom mu woote bisu mu Moustapha lañ caa war a teew sant la ko mu Moustapha mooy sunu teewaay ci bis bi. macha gis nañ ne Baye donc ñu bari bu xew xewle bis yu mel nii fu ne dina am directeur société yu leen jëppi dina am ministre yu leen jëppi dina am ñu leen jëppi ndax dañuy defar carte soutien kii ci kii day defal lépp boppam ba pare ne kaay ñu santale ko yàlla santale ko Serigne Touba maanaam Pastef gi mu wane koñ bi mu dëkkit ñëpp gërëm ko yemul ci euh, jox leen ci xéwalam mais da ci jubbanti ndaw ñi ban ànd ak ragal yàlla gu mat sëkk waaw xam nga Daaru Xuddus moom daa am leen tàggate li leen tàggate mooy jaamu yàlla ak liggéey ku liggéey mën a sàmm sa ngor boo doo lëjal kenn kon nangoo jaamu yàlla kenn du la xeeb yooyu ñaar bu dajee ci moom man naa woote bis bi fekk nag la mu jàppan ba bis bi ñëwagul te mooy wéetal sëñ bi di jaamu yàlla di ko liggéeyal moo ko jàppale mën a mujj yu bëree bëri loolu rek la fi mu fi mu war a nekk rek la nekk Cheikh Moussa Mbacké ku ko tuddoo da war a nangoo liggéey jaamu yàlla am fula tey dimbale. jërëjëf kooku mooy bàyyi Baye nga di ko am Pastef di koy defar ci làmp fal ñu ngi koy nuyu bu baax ak Soxna Jaar ak yëpp naw loo xam-xamam. ak tamit képp ku réer ku koy déglu moom du la jay du la tiital mais dina la wax dëgg te yàlla tax moo tax ñu nawloo xam-xam bu baax a baax mais donc loolu fu toog dañ koy seede kon il faut ñu seede ko sa kanam mais kontaan nañ sa xam-xam. jërëjëf sa maandu ak sa dëgg. alhamdulilah jërëjëf loolu daal ko amin loolu bég naa ci. bég naa ci loolu jërëjëf <laughs> jërëjëf. Lamp Fall ngeen xam ki am bu baax ngeen gën ko fonk ndax euh, réew mi ñoo ko war a gën a fonk Baye Ndongo li muy liggéeyal diine ndax am naa féq du ko déglu te du lu muy wax rek day jariñ kon xewal dikk loraange nag jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi Sidi Ahmed Aidara teew ci bisu sëñ Modou Moustapha bisu sëñ Moustapha Ndial Karim di 19e édition ban témoignage nga nu mën a waxal ci sëñ Moustapha Ndial Karim ak pasteefam ah, Sidi Ahmed Aidara alhamdulilahi wasalatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala ali beytihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin Euh, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ali bayti ak njaboot yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy seede ak suñu teewaay tey ci bis bi euh, dañoo gis ne Cheikh Mouhamadul Moustapha suñu maam lañ ko tuddee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu tànn li ñu seede ci moom mooy xusnul xuluq mooy jikko yu rafet ak doxalin bu rafet ak am taalibe ak bëgg taalibe gi jàppale taalibe yi ak di jokk mbokk bi muy ñëw fii ànd ak ñaari taalibe wala benn taalibe di yaatal ba moom ñëpp tey lu ko waral mooy xusnul xuluq yëg yëg yëg bu mu am ci nit yi moo tax tey sotu yonent yi Euh, Seydu Cheikh Ahmad Bamba même même même même Seydu Cheikh euh, Alaji Malick yi ñëw nañu donc nag incha allah ñu ngi koy ñaanal li fi mu bëgg a yegg ci ci tariqa Cheikh Ahmad Bamba ci l'islam bi yàlla na ko yàlla mottali incha allah ñu ngi leen ñaanal seen télé bi yàlla ñu ñu seen seen i soppe lañu yàlla na yàlla barkeel def ci tawfiq ci barke yonent bi allahumma salli ala rasulillah. Euh, a kon bisu alkarim nii la mën a mel. jërëjëf mbokk yi ñu ngi nekk ak uh, sëñ Cheikh Ndiaye Njare di koo xam ne nag uh, wëllëre alkarim la mu teew ci bis bi di 19e édition ban seede nga nu mën a waxal ci sëñ Moustapha Ndiaye alkarim ak Pastef waaw bismillahi rahim auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wal asri insan dem ala sina abna ami salat wata waa soo benn ak wata waa bi sab sant yàlla julteelu salaam alayhi salaam waaw Cheikh moom tey moom bisu cant la moom bisu sant yàlla suñu borom baax ndax Cheikh Moustapha moom ko xam ku ne xam ko taalibe Cheikh Ahmadou Mokhtar taalibe Mourid Sadiq ko am ne léppam Cheikh Moustapha la waaw tey mu def màggal di koy woot fii di Fass Mbao waa tey képp ku na asadu an laa ilaha a wa asadu anna rasulullah wuy sunu ko bisam bi tey wax dëgg yàlla li moom macha allah fépp foo xam ne mbooloo nga fa rek ñëw na fi ñi ngi koy sant yàlla bu baax a baax di koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér te mu yàgg kaa màggal ay at yi at yi at tey ji wax dëgg yàlla képp koo xam ne rek murit la ñaseen tijaan xaadir ñëpp ñëw nañ fi ñëpp mbokk sëriñam ñëpp kenn ñëpp gis naa leen fi wax dëgg yàlla macha allah ñëpp ñëw nañ ngi rafetlu bis bu baax a baax di koy ñaanal yàlla suñu borom heure bi déwén mu ngi fekk ay déwéni déwén ba lépp nam ko bëggee rek moom man ka amal na ko bëggee ci bàkk seen tur sallallahu alayhi wa sallam ci bàkk borom Tuubaa di ñaanal la Cheikh Amadou Moukhtar Mbacke si mu yàgg fi lool ànd ak wér di ñaanal xalifa Cheikh Darou Assane Ndiaye Cheikh Abdou Khadir Ndiaye mu yàgg fi lool ànd ak wér ci bàkk seen tur sallallahu alayhi di ñaanal waa Tektal TV yëpp ñëw nañ teew nañ kenn desut ginnaaw ñëpp ñëpp ñëw nañ di ñaanal di télévision bi mu dem ba am ay télé télé télé télé bàkk seen tur sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal yow mi xam ne yaay borom yàlla suñu borom la fi kàttan na la wéral la bàkk seen tur sallallahu Euh, ñi ngi toog ak euh, sëñ Mbacke Mbaye di wólëre sëñ Moustapha Ndiaye Al euh, lan ngay wax ci bisu sëñ Modou Moustapha bisu sëñ Moustapha Ndiaye Al ren di 19e édition ak yan seede nga nu mën a waxal ci Pastefu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim nga xam ñëpp wuy si nañu. waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh Talib ñoo ngi lay nuyu di la siyaar bu baax xam naa Cheikh Moustapha nag. Euh, dana yomb ci ñun ñu am kàddu yi ku may seede ci moom ndax euh, xam nañ ko lool xam nañ ko bu baax a baax ndax euh, sama rakk la. mën naa ni maa ko maa ko yar waaw lépp ci sama kanam la ko defee li ma xam ci moom nag dëpp mu nekk tuut tànk ba tey muy Pastef ak bëgg lu baax ak yéene ju sell ak njàmbaar ak fit mu dana ko yittoon dama ci Moustapha waaw ku yàgg bëgg baax rek. Mbacké gis na ne Al ñu bari buñ xewlee bis dañuy defar ay lettres soutien. dugg bureau bu ne dugg ministre bu ne ban xaw leen jëppi mais moom day defal boppam ba mat mu soog a jàpp bisam ak Pastef googu lan nga ci mën a wax pour nit ñi roy lu kuy def dara da nga war a pare pour def waa loolu da ko da koo da koo nam euh, ndax waa waajuró yu baax yi loolu loolu li ñu doon def turandoo si Ibn Moustapha bi mu amee yéene yi taxawal jumaay Touba euh, booba amoon na maanaam possibilité wu maanaam def comme ni nga wax waaye dafa njëkk ci maanaam kartoog boppam bay ay tool euh, sos ay taalibeem ñu ànd liggéey loolu nga xam mooy mooy liggéey sëñ Tuubaa bi jërëjëf sëñ Mbacke Mbaye kontaan baax a baax boo ko jërëjëf ñi nekk ci bésu sëñ Modou Moustapha bésu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim ñi nekk ak euh, baajang di wóolare sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim nga teew ci bis bi ban seede nga nu mën a defal ci sëñ Moustapha Ndiaye Al ak Pastef asalaamaaleykum maa yéen ñëpp si nekk sotti ko sant di ko jaajëfal nag na bis bi daal alaa doon na am si kontaan trop ndax moom nit ku baax la nit ki la nga liggéey rek lan lay fay lii am fii Mandela da koo liggéey da koo liggéey ndax am ak ñëpp jàmm bëgg ma man surtout man mi am fu ma teg du def lu ma yëgul daanaka tey nañ Tuubaa bu mu seedee nga dégg tey ñu dayuwaat fii dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko li jig yàlla na yàlla taxaw ba mu koy def ay yu édition loolu daal daa am lu mu koy ñaanal sama wax nag bëriwul dama koy ñaanal rek man daal amul lenn dama koy ñaanal voilà di sama jarbaat bada ah? di ànd ak sama jarbaat bada sa jarbaat la ci bis <laughs> bi lan la Bada Bada Bada Bada Dieng waaw Badara sëñ Badara Diop yaa ngi ci Tektal TV ci bisu sëñ Modou Moustapha euh, bisu sëñ Moustapha Ndial Karim ren di 19e édition euh, ban seede nga nu mën a ci sëñ Moustapha Ndial waaw di wax ne onze billahi min seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim inna wali yàllaahu euh, di sant sëñ tubaa di gërëm sëñ Touba di ñaanal sëñ Touba euh, di di sant Serigne Moustapha di sant Baye Dieng sama nijaay bi ma xëyee ci suba la ni ma carte téléphone ni ma jarbaat tey mbaa doo xëyee fenn ci bisub Serigne Moustapha bi ma ne ko nijaay de mu ma ne ko démb la sëñ bi feree na samay tànk ma ne ko démb la sëñ bi feree na samay tànk ni ma suba la cant gi mbaa fàtte woo ko ma ne ko Ndiaye kenn du la fàtte yow waaw ma ne ko ëpp ngaa fàtte kenn du la fàtte dama jëlale nag sama nijaay vraiment ak ni ngeen demee yéen ñaar te maanaam kii day kenn ci man kii day kenn ci man li olof di wax naa foo dee mën naa jafa waaye fu mu feebar naa fa naan ay garab man barke ok jërëjëf mu ca xew mu wax ko ñëpp dégg ko kii nag bu may wax ci moom mën naa yàgg te bu ma yàggee ba moytu jàngi nag am am waaw ndax sama sama féete biir sama ndey sama wuyjur sama sëriñ sama lépp kunte sidi yàlla nga yàgg ana sëñ Saliou dugal taxaw nga waxtaanal lu tuuti Cheikh Mouhamadoul Moustapha te nu déglu nag te teewul attentivement ñoo ngi nuyu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne bi ñu joxee rajo bi la tàbbi ci jotaay ñu ngi nuyu soxna Astu Kunta mii ñu dara jaale bis bi bokk ci njabootu Cheikh bu Muhammad diggante boobu xaw naa yaatu ndax seex Mouhamadul Moustapha al Karim nii moom bis bi ñu koy màggalal doomam ma nga woon ca sa kër wayjur kon dara jaale gi ñu la ko dara jaale war naa mën a ne di soxna Aminatu Mbakke Cheikh Moustapha nag doomi soxna amintaloo sëriñ Cheikh Bara maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Xaadim jinne mu sëriñ Saaliw ak sëñ Maamam Loo Gaydeel Cheikh Moustapha yàlla miy bind tey maye jagle moo ko defal xaas Cheikh Moustapha lépp li mu am xaas la soxna Amin Tëloo ba demee ca marsiyaam ba tudd sëriñ fi waa Màkka ak waa Madina Baye Moussa Ka dafa wax ni moo jëkk mooñ ceray lay ak taalaale fa néegi Touba mës la sol galali moo jëkk fab ruuxam nga def ko àddiya jébbal ko Bàmba ndey ja mooy waliya moom soxna maama awa bu sa way juru alaaji Cheikh Modou Fadal borom Touba xamal leen ni seen sun sunu borom daa soxla ruu genn ci sunu ñetti ruu yi soxna awa bu say waaj tontu soxna amintaloo femm mu déglu mu ni ko sëriñ bi li muy liggéey yeggagul te yow wóolu naa la ci Mouhamadou Moustapha ak Mouhamadou Lamine te booba sëñ Baara ay weer yu néew la am ak feeñam damay faral di wax ni ñi mu coïncideel moo lay jox mandargay Cheikh Moustapha parce que Cheikh Moustapha yow ma asura la feeñ yow ma asura ku ne xam na ni ca maam Adama giseeg Hawa ci kaw suuf si gaalug Seydunaa Nuuxoon nga ca tuufaan ma àdduna tukki woon na yow ma asura la àdduna reprendre Nuux ak quatre vingt personnes yi mu àndaloon rek ñoo desoon ci kaw suuf si àdduna tukki woon na ca tuufaan ma waaye gaal gaa nga teer yow ma asura maam ibrahima yàlla nga ko musal yow ma asura yonu sa jën waa nga gëq ca tefes ga yow ma asura yow ma asura la musaa xar bëhru xalsoom yow ma asura la njël jëmmi isaa aj asamaan Cheikh Ahmadou Bamba nettali na ko mais nee na yi ma la wax yi yëpp c'est grâce à rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi tuddee Cheikh Mouhamadul Moustapha najaa bihi llaahu nuuhan bi safinatihi wa jaahu ka fa yanquba albaliyaati najaa bihi llaahu nuuhan bi safinatihi wa sina yanquba amma asbatu kaama bihi qada naaru ibrahimu baridatan maa salaami fa haza xarqu aadaati bil mustafa axraja almanaanu yusufu min sinil matini wa min tilka alxayabaati bokkul ak bil muntaqa axraja almanaanu yusufu min jubbin wa min kaydi man anha tada walama wa saahibu nuuni lil mawla tajaa fa najaa bil muntaqa fasadnaaha kulla hummati il Moustapha bahru Moussa Kaana mun falixan kama bihi ruhu Isa li sama isama yii yëpp ci yow ma asura la xew yow ma asuraay ama wasasin 1306 lésir 17 septembre 1888 Cheikh Mouhamadou Moustapha gane si Cheikh Ahmadou Bamba booba muy door a gis Touba nag ne fa taxagul mu sax fa waaye kenn xamul fu borom Touba ne ba bis bi dellu si. Cheikh Ahmadou Bamba gannaaw bis mu dellu si la dikk tudde ko Muhammadu Rasulullah moo ko dalal alxuraan ci loxol boppam moo ko jàngal basin ba yaasin moo ko sëñ Fallu ak sëñ mag bay leen dalal basin ba yaasin nattu bi ñëw mu ànd ak ñoom Mbàkke Bari Jolof waaye bàyyee leen Cheikh Ibrahima Fati sëñ ndaam yeggale alquran bi Cerno jàngal xam-xam Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim kaamilub Cheikh Moustapha bu mu bind te xoolu ko fekk na borom tuubaa Gabon bi mu ñëwee mu jébbalu ci moom ànd naag moom gànnaar juróomi weer la borom Touba def ci dëkk bi ànd naag moom gànnaar tarbi yu fa borom Touba. wax nañ ni gànnaar sax suñ tubaa faggu na fa mbooleem téere bu jara xam lu woo ko moog alaaji Cheikh Modou Fadal ñu toog ci kanamam mu ni leen fab leen yóbbu ca dal ba téere bu ci ne xaraf fi njëkk ci ndejoor ba ci wi mujj ci càmmoñ na ci seen bët dal mokkal geeg bañ a fàtte gi maa ko gàddu koo xam ne suñ tubaa yor sag mokkal ak sag bañ a fàtte xanaa yaaraw ci àdduna bi seex mu Moustapha raw nit ñi Ceyeen Jolof la tudde Moustapha Njañ fa la nekkoon di tërbiya borom Touba ba yorub jañ ni dongo yi kenn musul te fekk Cheikh Mouhamadou Moustapha ci mbooloo ci kër sëñ tubaa ba xam ni kii sëriñ bee ko meññi ab jañ la yoroon sëñ bee xëy woolu ko mu ñëw mu xayuloo ko ndax booba waajal na ko ci bis buñ nee guddi na mbaa naaj la moom la ñëpp yi waxal Aminatu la way juram tudd yonent bi ñu ko tuddee Aminatu la way juram tudd lii Cheikh Moustapha doon na ko ci rasulullah yonent bi Mouhamadul Moustapha la tuddu Mouhamadul Moustapha la tudd 40 ans la am yàlla ni ko moom Seydina Mouhamad 40 ans la Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim am borom Touba njibbi àjjana mu jiite murid yi et particulier maanaam xusuus yëpp Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy njëbbalug Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Maloumbe ku dul borom Touba ak Cheikh Moustapha amoo ko mel dafa xat ma ni mbër mu toll ni maam Cheikh Ibrahima Fall ci gannaaw borom tubaa Touba Cheikh Moustapha Massa amuk njëbalam Ahmadou Ndumbe Xabbaan ci gannaaw borom tubaa Touba Cheikh ma Massa amuk njëbalam Cheikh Moustapha réussir li ko fi borom Touba bàyyil yépp nanga ma yóbbu tubaa te bu xat damm léeg nga gis ku mel ni Saliou Samb di waxtaan naan sëñ bi dañu ko nanga ma yóbbu tubaa te moom tubaab tiim sëñ bi waxul loolu de nanga ma yóbbu tubaa mustafaa nanga ma yóbbu Touba te damm ñu ndaw ñi na nga leen taxaw kërug njaareem gi bu ko bàyyi mu sàqi ba fu waay neex jaar ko na ngeen taxaw ci sama jumaa ji li ma la wax boo ko defee lu murit tàmbalee ti naa ko yeggale Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim damay faral di wax ni diggante Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ci amoon fukki at ak ñett bi borom Touba di dem ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada bu fekkoon ñoom rek la Cheikh Mouhamadou Moustapha réussir moo gañe ndax dégg nga ma ñi nga xam ni Cheikh Abdou Lahat ci magoon ba ci Cheikh Mourtala bu fekkoon ñoom rek rek rek ci li sëñ Touba santoon Cheikh Moustapha ñoom rek la Cheikh Moustapha réussir Cheikh Moustapha gagné ndax yarub sëñ Abdou Lahat ba ci sëñ Mourtala kenn xameewu ko ak yarub seex Mouhamadou Moustapha al Karim Cheikh Amadou Bamba sant ko jumaa ji kone xam na diggante borom tubaak ak jumaa Cheikh Moustapha taxawal jumaa ji damay faral di wax ni Baye Ndongo histoire ëndeegul cinquante kilomètres raay bu privé ta taxawal raay fu ngeen ko mës a gis ci àdduna gouvernement ko taxawal Cheikh Mouhamadou Moustapha ci détermination ak njàmbaaram moo mës a taxawal cinquante kilomètres raay moom Cheikh Mouhamadou Moustapha est-ce que xam nga lu tax Cheikh Moustapha taxawal raay bi pour luy transporter bagage yu yu tabax jumaa ji mosoo gis ku jumaa tax mu xàll aw yoon moom Cheikh Mamadou Moustapha ko njëkk def ci àdduna koo xam ni yoon wi mu defar pour transport jumaa tax benn passager taxul raayu njaareem bi bàyyikoo koo ñëw Touba benn passager taxul ñu def néegu yàlla bi ko borom Touba sant moo tax mu def ko aman nay sa sin ca Ramadan la yónnee ci seexi borom Touba yépp moom Cheikh Moustapha ni leen na ñëpp jullee si korite Touba ndeke jumaa ji lay taxawal altine la korite googa Cheikh Moustapha julli ba noppi digle jumaa ji xëy talaata muy ñaari fan ci Zawal amee nay sasin mu woolu Cheikh Cheikh Mouhamadou Fadal ak Serigne Massamba Issa Dieye yabal leen ndox ñoo wari woon carrière ba ca juróomi fan ya mbaa juróom-ñaar la woolu sëñ bu soo mu génne penku bi fukki fan ak juróom-ñaar la Cheikh Moustapha wàcc ci kàmba gi teg xeer wi ca kori woowa sëñ Basiru Mbàkke ko santu ba ci jumaa ji topp ci ginnaawam xibla bu nekk mu jàng fa way ziar fan ibrahima alxawaayida min al bayti wa ismail ba aaya bi daanu mu jublu beneen xibla ci ñeenti xibla yi mooy awalu man bana fil binaa yi Cheikh Moustapha njëkk a tabax moo wàcc ci kàmb gi fukki fan ak juróom-ñaar ca Zawal jàmb ciment bi war a teg xeer wi alaaji Bamba Samba tiim ko fecc kaala gi jox ko xeer yu sew yu bari mu ni ko lii lan la mu ni ko damaa demoon makkatal mukarram yii xeer maa ngi ko fore ca xabrub sayiduna muhammad yii des maa ngi ko fore ca kaaba ga mu ni gees sëñ ma sàmbay sëjee mu ni ko sa baay baa waxoon wajal bihi daariya kal madina barakatan wa kaabatal masuuna Cheikh Moustapha jaxase tabaxaale njàmbaar ci Cheikh Mouhamadou Moustapha layam liggéey na ko ba guerre bi takk 1940 mu arrêté liggéey bi wax ni jumaa ji wàllu keneen da cee ne góor mooy Cheikh Moustapha la ko Baye Moussa waxoon ay dëgg Cheikh Moustapha lu mu doon moo ca gën loolu ko suñ Moussa Ka wax ca sërifi waa Màkka daa wax ni bu Moustapha doon pël itam di ardo ngir yaari wàllam yépp am nay fardu bu Moustapha doon law bi dégg maalaw bu doon ci buur di fari dégg awlaw bu Moustapha weexoon di tubaab ñu naan ko gouverneur bu doon ouvrier dégg entrepreneur bu Moustapha doon jaan ñu naan ko saamaan bu doon weer di weeru koor mbaa sambaan bu Moustapha doon rabu àll diw ñaay mbaa ngaaka mbaa ñamale ñëpp naan cey bu Moustapha doon jàkka faf di màkka mbaa muy madinatu mi gën ci iraka bu Moustapha doon xeeti mursalina ma naa ko yaa di xayrul awalina bu doon foore mbaa waliyu ma naa ko yaa di ahmadul mbakki yu bu doon géej ma naa ko yaa di barul muy di yaa ngi woon fi daal te xel fi lu waraa Baye Moussa Ka nee na ko giñ naa ni kuy woote xalifatu yaa ko gën isa baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay dana la faw yi xaw naa araam yaaram du gan gam lekk sagam yamu leen i baay eh Ahmadul Mbakki yu góor yamul ak moom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 Modou daa taxaw de daa doy boo wax boo bëggee rek ma jox la rajo bi góor yi moo ci gën di góor dama ne góor ñi Cheikh Moustapha ci gën di góor moo gën a dëgër dawul jëfandikoo bàttin xel mu sell la daa deme moom Cheikh Moustapha mas naa wax kenn ci mag ñi ni ko diw adduna bépp mën nga leen a sol ci menn mbett te du doon bàttin teraanga rek moo tax sëñ mbay ni ko teraanga nga yeewee as gor pinti pantagama la jàppe magi borom tuubaay yëpp ñëpp xëy sukk fi kanamam nangul ko te lépp fekk leen fi maam Cheikh Rafal ak sëñ Bandoumbe ñoo ànd jébbalu bi ñu bi ñu bi ñu yóbboo ku tedd ka mu ñibbi fële ca dëkkam ba mu bëggoon ba mu am ñeent fukki fan la sëñ ma numbe nuyu maam Cheikh Rafal mu ne ko Ahmadou mu wuyu ma numbe ah, maa ngi jégalu ci baat bi may wax nag wolof bu njëkk ñooy def bu sa borom kër wàccee ñuy wax ak cagala maam Cheikh Rafal ni ko ah ma numbe cagawu gi doy na nan wutil sëriñ yan bés yan ba sëñ Bamba yanu woon bu bu defee fukki ñeent fukki guddi ak ñaar ci biir suuf dinañ ko teg ci bopp dinañ ko teg ci bopp sëñ Mandumbe gaalu xaalis maam Serafal gaalu xaalis maam Serafal ñetti junni say mat sëñ Mandumbe benn benn junni say mat jaare gaali xaalis ñetti junni say mat ñetti junni ndabi ñam ñu jiitle tàbbi ci kër gi bi ñu duggee ki maam Cheikh Rafal njëkk a nuyu dañu ko ak ah, noo def mu fay ko mu ne ko ki ñuy wax seex Cheikh Moustapha Mbacke fu mu ne mu ne ko néegu ràng bee ngay séen ma nga ca ba ca wàllam mu ne ko nee ko sa baay bu baax ba ma numbe mbàkke jàng ba ni ar teg fee njàng ma doxaluk taalibe ak sa jàmb ibrahima fall lay nuyoo keroog sëñ ma numbee raam lu siggi Cheikh Ibra Fall jébbalu samaam nag sëñ Darou Assane Ndiaye lenn lu mu defal Cheikh Moustapha laay wax joxe rajo bi ndax dégg ma jotaay bii ku fi waxtaan ba noppi tuddoo sëñ Darou xamoo dara ndax dégg nga ma jotaay bii dama ne ku fi wax ba noppi tuddoo sëñ daru xamoo dara ñeent fukki guddi Cheikh Ahmadou Bamba 40 jours fii ci Daarul Xuddus sëñ Tuubaa tëjuloo ko sëñ Daaru tëju fu julli jotee fu julli jotee kooka nga xam ni kenn daawu ko jiite fu julli jotee sëñ Tuubaa mu rasan mu wuyu mu ne ko bismillah sëñ Daaru kabar sëñ Tuubaa toog soxna Faati Ja la njëkk a gis ci doom sëñ Darosan soxna Faati Ja ko muuru soxna Faati Ja nee na bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di gën jamono maa ngi tollu suuratu mulki waaye sëñ Tuubaa ku ko xam di nga ko wagar de sëñ Dëru Asan Njaay Cheikh Moustapha da ko mas gane ji ngan goo xam ne bu ma ko nettalee joxe rajo bi waaw Cheikh Mamadou Moustapha al Karim daa mas a gane gi seen maam ngan goo xam ne bu ko nettalee ba pare joxe rajo magam ju ko magee juróom nga fa ci kër soxna Fatidia Cheikh Moustapha dégg na rumeuru sax rumeuru moom de magam ju ko magee juróom-ñetti at fa ndax bu fa demee dina fa am wàccuwaay waaye borom Tuubaa ku ko xam bu doomam ñëwee ci yow am wàccuwaay rawatina doom ju toll ni Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ñëwee ci pencum Daaru Njaay Cheikh Moustapha yegg see ci ngan gi laa lay wax sëñ Daaru daa mel ni ku doon dëggal waxi ya ndekete da bëgg a wan wàccuwaayu borom baax sëñ Daaru daa wàccee Cheikh Moustapha fas wi jàpp ci loxoom ba ci penc mi mu teg Cheikh Moustapha ñu mel ni lu bëgg a jaaxle mu ñëw wommat fasu Cheikh Moustapha wi dugal ci néeg boppam ndax dégg nga li wax sëñ Dero Assane Ndiaye mi nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba nee na ku mu ni yaa ne ci sama kanam boo gestoo mbaa nga ralentir mu la ci yoonu yàlla Cheikh Ahmadou Bamba seede de moo ni mu daa san ku mu ni yaay sama kilifa yaa ne ci sama kanam ci diine boo boo teeyee sax mu romb la waaye néeg bi mu doon jaamoo yàlla la dugal fas Cheikh Moustapha yi dalal ko bu daal di génn woote ci pénc mi ñu ñëw sëñ Daaru wax ni doomi sëñ Bamba du ñëw du toll nii du ñëw ci dëkk di fanaan ci néeg bu góor ma sa fanaan damaa bëgg ngeen taxawalal Cheikh Mamadou Moustapha ab néeg léegi léegi sanc ko léegi fi saa si lañ takkal Cheikh Moustapha néeg bi sanc ko Cheikh Moustapha door a tàbbi néeg bi néeg bu góor ma sa dugg Cheikh Moustapha dugg ci keroog sëñ Daaru di ganale Cheikh Moustapha di ko ganale di ko ganale di ganale Cheikh Moustapha di ganale Cheikh Moustapha ba ngan gi war a jeex Cheikh Moustapha tàggoo Sëñ Daaru ànd ak moom ba ci fas wi mu sukk ci kanam fas wi mu sukk ci kanamu fas wi moom Sëñ Daaru Asan Njaay ni Cheikh Moustapha nga teg sa tànk ci sama ndigg dugal ko ci diggalu fas wi ñibbi ci kaw fas wi rek moo des ci ngan gi oh ndax yéen a ngi may dégg booba soxna Faati Ja maga fa sëñ daaru wax Cheikh Moustapha ni ko ngan gi li ci des mooy ma sukk ci kanamu fas wi sëgg ma sukk ci kanamu fas wi sëgg nga teg sa tànk ci sama ndigg dugal ko ci diggalu fas wi njibbi ci kaw fas wi rek moo des ci ngan gi Cheikh Moustapha gàntu sëñ daaru ni ko loolu du mën a ñàkk sabab jarbaata de barke borom Tuubaa sëñ daaru sëgg Cheikh Moustapha teg tànkam ci kawam dugal ko ci diggalu fas wi njippi ci kaw fas wi mu jàpp biir noor bi moom sëñ daaroo seen Ndiaye woo sëñ Fallu Ndiaye ak sëñ Modou Dia Ndiaye ak sëñ Mbay Falloo ma mu joxoon soxna Mariam mu bokk ak sëñ Mbàkke Madina Ndey ak Baay ay eh, sëñ Mbay Falloo ko waxoon abuka xat kaana ala awliya wa anta min baadihi alahumu rutaba dégg nga sëñ bay falloo li mu wax Cheikh Moustapha abuka xat kaana ala awliya rutaban wa anta min baadihi alahumu rutaba sa bàyyee sutoon góor yàlla yépp daraja waaye bi mu demee yaa fi sut daraja yow Cheikh Moustapha bay falloo Ndiaye ko way doomi sëñ daaru la ak seen yaari rakk ñuy juróom genn góor gu gane si nga yeewee ko juróomi góor waaye juróomi doomam moom sëñ Darou seen Ndiaye ñu ñëw mu ni leen bijjanti leen Cheikh Moustapha ba ci yoon wi fu mu ni leen ngeen yam fa ngeen yam fa bu leen waxul ngeen dëpp ngeen doxafe dig moomeelam liy yóbbu waa Darou Ndiaye Darou Khoudoss mu mel ni bi ñuy jot kàddu gi fekk na jotaay bi xat suñ Daaru Asan nag day koo xam ne ni ma ko waxee rek su ma waxoon fii ba dem te waxuma ci moom dara damay goree di ndax am na ñoo xam ni su nit toogee di waxtaane borom Touba juróomi yoon te dégguñ seen tur xamal ni koo ko dese naa xam histoire borom Touba sëñ Daaru ci ñooñu la bokk ndax bi sëñ bi wootee rek ci wuur bi njëkk a jébul la bokk mas naa taxaw ci buntu armeel yi Daaru Njaay ni tey laay njëkk a feeñal kéemaan fekk ñu dencub taalibe mu ni tey laay njëkk a feeñal kéemaan tey laa koy mujj a feeñal daldi woo néew bi néew bi wuyu ñëpp dégg mu ni ko ci loo ne mu wax ko ci li mu ne mu jàll mas nay jàpp ba mu yàgg mu ni sëy sëñ Bamba sama waaje newoon na ma bala ngaa faatu lu njanaaw di wax di nga ko di nga ko xam ñaari picc yi kenn ki dañu moroom ki fu may fanaani fu ñuy fanaani mu ni ko nañ dem ca garab gee ñu jàngalee alxuraan moo gën a teey ku siñ de ngeen jëf ngeen baal ma xaq sëriñ xaadim yal na yàlla yàggal taxawaay bi weer wi weeru Cheikh Moustapha la ndax baraxlu ku ne xam ne diggam ak Cheikh Moustapha ci la am sëñ Cheikh Gaynde Fatma ci la am sëñ Mbàkke Madina ci la ñibbee àjjana waaye weeru borom darul moxti la nag ndax ci la gisewaat ak borom Touba seen retrouvaille ba ci la borom darul ñibbee àjjana kon weer wi sa weer waxtu weer xat sëñ xaadim Jaañ maa ngi lay bëgg yow sa taxawaay ci ñun benn taxawaay rek la mooy dagg bu bëri ñu jox sëñ Cheikh Bara Ndiaye kontaan nañ kontaan nañ ci sëñ Xaadim Jinne kon bu jërëjëf sonaas su yàlla na yàlla yàggal taxawaay maa ngi nuyu njabootu sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Moussa Al Karim bi sëñ bi ay dara yow lañu war a njëkk a ay dara ñoo ngi lay ziyaara bu baax ñoo ngi bëgg ci soxna yi bu baax soxna kateeg ñëpp rek ñoo ngi leen di bëggee di kontaan bàyyi ndongo jërë ngeen jëf waaw bëgg nañu waxtu wi moo demee noo xam ni wala fii dañuy wax ni lu dul doy lu ci waay am mu doy et lu ñëpp bokk lu ci waay am doy na kon kàddu yi ñu wax rek doy na sëkk ñoo ngi ñaan yàlla bis bii nga daje cee ngërëmul Cheikh Mamadou Moustapha ñoo ngi ñaanal Cheikh Ahmadul Muxtaar yàlla na sa borom yàggal ko yàlla na yàlla wéral ko yàlla na yéenam yàgg moom képp ku Cheikh Moustapha jaboot noo ngi leen di balu xàq bu dëngee nu na bu jubee sëriñ bi la noo ko koy sant teg koy delloo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngeen maa ngi tuubal nag njabootu sëñ bàmba gii nga xam ni ñoo bokk ak ñun jotaay bi du ngeen sunu nawle du ngeen sunu moroom seqoo leen ak ñun dara li tax mooy nun alali borom Tuubaa la te bis ba Seex Ahmadou Bamba waxee sëñ Fallu ak Seex Ibra Fall xéwlu leen te fekk ma ci biir bi sëñ lu raxasoo ni bàyyi Cheikh Ibra bismillah dani ko ah moom du fadilu xaj du bokk ak borom doomi sëñ Bamba kon suñu digg ak yéen looloo fi dox noo ngi leen koy tuubal ay taalibe sëñ Tuubaa lañu bëgg doon sant wu ñu baaxoowul xamee jullit sax bu fekkoon sëñ Tuubaa gërëm na ca kenn kooka buñ ko gisee ñun nangu na noo doon jaamam ñun suñu problème mooy génn sëñ bi waaye fii ak yaa ci sëñ bi mën na noo doon sa jaam rawatina nag koo xam ne bu sëñ bi doo am sunu sang yi noo ngi leen di bëggee di leen tuubal te di ñaan yàlla yàggal seen taxawaay wéral leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Moustapha Ndiaye Alkarim bis bi yàlla na nga ko taxawal ba màggal wax naa ko léegi sëñ Cheikh Taalif nee naa ko bis bi bu fekkee mooy dix-neuvième édition toogul ba ñëpp xam Cheikh Moustapha Ndiaye Alkarim mu door a sant Cheikh Mouhamadul Moustapha daa judduwaale bëgg Cheikh Moustapha kon bis bi kii boo wàññee ci atam yi 19 ans ah nee na 7000 la ko tàmbalee boo wàññee ci atam yi 19 ans war ngaa xam ni mënut li mu mën 19 ans ci ginnaaw mënut li mu mën kon bëgg Cheikh Mouhamadou Moustapha gi da koo judduwaale 2003 ba fii nu toog 19 ans kon yàlla na ko def ba màggat yàlla na nga ci dajeeg ngërëmul Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ndax damay faral nag di wax ni murit bu doful objectif am mooy ngërëmu say tubaa yàlla na nu dajeeg ngërëmul borom Touba asalaamaaleykum bàlleen ma xaq waaleykum salaam maa ngi nuyu maam bu ñoom bi yëpp di wax ci turu ministre intérieur bi nga xam ne moom lañ jagleel lépp lu di culte ci Sénégal gouverneur région Dakar préfet bu Pikine ak administration bi nga xam ne sànq fële ci kër ga wax nga taxawaay yi nga xam ne taxaw nañ ko ci bés bu sell bii di ko nuyoo yooyu di ko teg ci njabootu sëñ Tuubaa bi muy fekk góor ak jigéen bàyyi ko feneen fudul Dakar te fekk suñu fii ñu leen di dalal di leen bisimal euh, di leen souhaiter la bienvenue fii ci arrondissement bu Thiaroye ànd ak meeru commune bu bees bi comme ni mu ko waxee Cheikh Aliou Bey ak adjoint bi di ko teg ci seen loxo pour ngeen teg ko ci sëñ Moustapha njaay mi alkarim mi nga xam ne moo waral bés bi di ci ziyaare aussi parrain yi ak ki nga xam ne moom lañ dayalee bés bi itam muy ay nit ñu tedd ñu sell ñoo xam ne ñi seen jéego yi ngeen def ba fekk si ñu fii bégg nañ ci trop parce que dégg nañ li ñuy wax ci yéen balaa bés bi mais rawatina encore li nga xam ne conférence yi commencé woon na ko junj bés bi nag buñ fi taxawee dafa war a nekk parce que nguur gi dafa war a taxaw fu ñuy wax mbiri diine rawatina këri diine yi parce que du ma guddal ci li nga xam ne nguuru Sénégal am na taxawaay bu mu taxaw ci wetu këru diine yi rawatina bu ma ci jëlee benn rek programme bi nga xam ne jagleel nañ ko këru diine yi donc bu loolu fekkee ne ñi ngànk réew mi moom lañu xalaat ñun ñi ni nekk ay ndaw ci suuf lu yëngu ci diine fu mu mënti nekk daf ñu fa war a fekk mais rawatina nag aussi mu de jataay bu demee doo xam ne bii wax naa ko fànq fee ca kër ga moom sama gisee ak moom daaw ci la yàlla dogal ak cofeel dugg sama diggante ak moom te loolu bi ma ñëwee ba fii ci jataay bi gis ñu tedd ñi ko fi fekk si ak taxawaay bi ma gis ñu taxaw mais surtout laxasaay bi ma gis ay ndawi kese taxawee nii ñu taxawee ci diine man de wonoon kii nii man li ma gisoon ci moom rëccuwuma li ma gis am cofeel gi xam ne gis naa ko ci moom parce que moom mi ngi liggéeyal diine te bala nga nekk citoyen bu baax dafa fekk nga làmmoo déjà diine mu ci taba liggéey boo xam ne bii bu ma ko njortoon itam tey jii nii am na loo xam ne gis naa ko ci ma am xëy na ay xalaat yu ndaw yu ma ko bëgg a dolli parce que loolu xarit bay wax du sous-préfet bay wax lii nii maire wax na ko sànq loo tàmbali mu commencé ëppi loxo day laaj bërëb bu yees pour ñun suñuy gan bu ñu ñëwee mu am nu gën a taara nii loolu lu ma yéene la di la ko jëmale di la ko waxal nga jàpp ne bërëb bi fi mu toll nii njort naa ne mënatu la dalal sa jataay bii xaw ma nag feneen foo koy defee mais loolu moo feeñ ci li ma gis fii loolu daal la amoon ci lu may wax di li ma ciy teg yàqu wax la parce que xam naa ne ku de kilifa diine ñu ngi ñaan parce que addina bi ci fan yi ñuy toll nii kenn ku nekk gis na la xew fële ci diggante Russie ak Ukraine nit ñi jaaxle nañ mais ñun jaaxlewuñu parce que wéeruwaay yi dafa bari tey ëttu sëñ Touba lañ toog donc maa ngi jóge aussi ci beneen xew-xewu diine boo xam ne bi fa lañ doon màggal quatre-vingt-dix-neuf turu yàlla yi donc loolu buñ ci weeroo te suñ président de la république yor Union africaine bu ma toogee fii war naa leen wax ne leen am na lu ñu leen war a dénkaat yàqi wax la parce que xam naa ni yéen ci pour que li ñuy njort mu bañ am dal am foofee pour kër ñun réew yi mel ni suñu réew yi nga xam ne dañoo xaw néew doole loolee bañ indi loraange goo xam ne gii dina indi ay jaaxle ci koom-koom je crois kàddu yooyu lay wax di leen sant di gërëm. si al akim mi ngi fi al karim mi ngi fi sëñ Cheikh Ndiaye Njare xaadim jinne ku ne mi ngi fi léeg ci biir liggéey bi ngeen mel ne lu la xasooy goj te bu ngeen ñëwaatee yéen a bokk benn penc mu ngeen di dajara waaw xam nga ñooñu moom ñoom fi teew ñëpp dañ fee war a teew ndax bu affaire ñaan ak faj rek moo ñu boole waaw dañoo bokk sëñ Touba ñun ñëpp bokk Touba dëkk moom boo fa dëkkee. Euh, lépp lu ñuy def di koy jëriñ ci waa dëkk ba bu dee doomu boo xam ne nit ku baax nga loola balaa war a ñor gis nga barki démb rek Sadio Mané bi amee ay rebel yu jàpp ay euh, armée maanaam euh, jàpp leen kidnappé leen li muy ñàkk ñàkk jot dafa nekk ca Liverpool jël ay vidéom àddu parce que lu lu dëkkam la xew-xew bu toll nii mënoo koo wootee fii ci Fass Mbao wooteel ko sëñ Touba te ñu bokk sëñ Touba ki ko woote di doomu Touba ba noppi duñ ci teew loolu moom ñu ngi fi gisut jàpp naa ne ay yitte yu dëgër moo leen téye waaye ku amoon jàmm rek te am te am te am jot rek di ñëw teewe bis bii waaw kay sa balaa ñu lay bàyyi gis nañu tay am nga sa bi sant Diagne seen diggante tàng na jër léegi signature contrat bi day wéy wala day dakk non loolu moom du du waxu fii daal du waxu fii. du waxu fii ah waaw. waaw ah, kooku waaw boo bëggee beneen yoon incha allah ñu wax waaye loolu moom du wax. Ah. kon daal tey sëñ Modou Moustapha nga yow. waaw tey moom sant sëñ Modou Moustapha la. Ah. ñoo ngi sant Cheikh Moustapha bu baax di ñaanal Cheikh Modou Mokhtar bu yàgg fi te wér. reer nga reer. waaw euh, reer naa ba suur waaw. alkarim ma la jox wala. waaw alkarim moo ma jox ma reer ba suur waaw. parce li ci neex mooy alakim ne la dafa lekk ba suur te la sant te yéen du ngeen desal loolu ma jox. ah en tout cas daal reer nañ ba suur fii ñi fi ñëw moom reer nañ ba suur wóotaa daan ngénte la fi xewoon fan yee. Eh, waaw da ngay reeraat la fi xewoon fan yee ah. dafa. waaw añu. non ngénte la xam ne ña demoon ñëpp kenn añu dañoo denc añ yi. Ah. tëju ci ñoom ñu bokk sant képp di lekk lekk gi bàyyi ñi des moom eh. loolu moom xewut fii kon xaas sa ngénte li lay wax yow sumb la ah dégg nga li sax baara wax nee na fii la lekk ba suur bu baax a baax ah man na ñaar yëpp suur naa te alaakim nee na suur na ñëpp suur na kon euh, kontaan na daal. jërëjëf jërëjëf sa yére bi rafet la na. waaw noonu. ku dàq. waaw Alakim gisaguma ko nag xam nga a yéex a ñëw moo tax. bu loolu sax moo la de. waaw ku la. daa a niróo la waaw. ok yéen ak Alkarim ku dàq la. nga al moom daa mënut a sañse nag looloo ko yàq. saa moom daa mënut a sañse daal. Ah, yow Kine non moom tamit mën na sañ sax xamul dara. kon jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye xewal dikk loraange nag. waaw ñu ngi nuyu ñu ngi leen nuyu Cheikh. waaw nag gëj nañoo gisee. waaw ñun ñëpp daanaka benn lañ man Cheikh Bara Alkarim. waaw boo xoolee benn famille lañ. maag Cheikh Bara bi ñu ñoo ànd. Alkarim di sama xarit di sama wëlloore bu yàgg lool. waaw lu muy def rek ma fekk si. di wax na ñun moom Sëñ Tuubaa rek moo ñëw. loolu liggéey suñ tubaab bi laaj de dañ ko def moo taxoon ñu dagg suñu yite yëpp ñëw ñëw ñëw ñëw fii tey ci bis bi waaw gis nañ bari bu ne xew la bis ay ministre dañ leen di jëpp ay député dañ leen jëpp ay directeur société dañ leen di jëpp ndax dañu indi carte soutien kaay jàppale ma ci sama bis bi mu jaral la ñu mere la wala ñu wax la lu ne ah, Al Karim nag bisam day defar ba mu jag mu woo nit ñi ku ñëw fekk jag na ku ñëwul fekk jag na mu ne kaay la ñu bokk yiw. wax naa ko léegi nee naa ko bis bi xajatul fii. ndax gis nga dem nañ ko. seen grand théâtre waaw nee naa ko ñëpp ko grand théâtre wala ndax moom day nut ku baax. Ah. moo tax soxlu benn ndimbal ci bis bi. boobaag léegi bis bi moom gis nañ ne gokkute yi mu am. Mm. mooy jël na suñu woon mu soit teg ko ci kanamam. jël xalifam sëñ Moon Moussa muy Cheikh Ahmadou Mokhtar nga xam ne tudd mii bi mujjee xewle moo dagg yitteem ñëw kon moom nit ku baax la ak mbaaxam rek mooy yitteem gis nañ daara alxuraan yi mi taxawal ak gone yi nga xam ne da leen jàngal seen diine ak Fass Mbaw gi li tuub la ci gone kon wax dëgg yàlla lu baax rek am solo waaw waaw macha allah waaw kon daal loo koy ñaan suñu borom yokk ko yokk xéewalam ku defar amiin amiin barke sëñ gis na sëriñ sabi doon nañu wenn say ah, muy ala ngi fi Cheikh Bara ngi fi ah, sëñ Cheikh Ndiaye Njare ngi fi ah, ku ne ngi fi xaadim ci ne mais euh, léeg-léeg ngeen laxasoo goj mais ci fii ngeen doon benn daal yàlla na suñu borom taxaw ko ci barke Seexul Xadim waaw jërëjëf taxaw ñëpp barke Seexul Xadim jërëjëf Seex kontaan nañ am na député yu leen di jëppi am na ministre yu leen di jëppi am na directeur société yu leen di jëppi ndax kat soutien yi leen indil mu jaral leen ñu mere leen mais Al day defar ba mu jàkk ñi pour ñu bokk yiw wi Pastef googu waaw jërëjëf Cheikh Moustapha li ma ko wax léegi rek hmm. euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha mi muy tuddoo hmm. ku koy tuddoo di nga am jom di am ngor di nga am pas-pas. Mm-hmm. li tubaab di wax détermination. Mm-hmm. ci Cheikh Mouhamadou Moustapha la fekk baax. Mm-hmm. kon bu wooteelee Cheikh Mouhamadou Moustapha def Cheikh Mouhamadou Moustapha buntam. Euh, li nga wax ni moom la ciy def ba noppi te du ci lakkal kenn. du ci sonal kenn. du ci teg kenn lu mu attanul. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy war a mën a nekk. te bàyyiwul ba mu xew sax mu am bés. waaw mu ngi ci 19e ba mu jóg du léegi mm-hmm. mooy wane ni bëgg gi Cheikh Moustapha. da koo ko màggaale waaw moo tax mu mën a dem ba waxtu wi. toll ci 19e édition ndax 19 boo ko wàññee ci ay atam des du bari lool. te dafa ñëw ci Fass Mbao dëkkandoom yi di leen seedeel ci wërsëgam li mu leen di defal mais yamu ci mais ni muy yore xale yi di leen tedd ci diine ba gis naa maire bu fi fere ijji ci lu mel noonu ci lu baax lu muy def. waaw xam nga sëñ Tuubaa dafa wax ne ku la teree jàng ku la teree sax xam-xam. mooy xalifa iblis ci kaw suuf. wa man nahaakum ani taallumi fa huwa xalifatul lainul mujrimi kon moom bu fekkee Cheikh Moustapha mooy buntam. jàng ak jàngale ak liggéey rek. la war a def jaamu yàlla. macha allah sëñ Saliou Samb jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum mbokk yi euh, nekk kii di sëñ Assane Gueye Mara di sunu euh, kóllëre di sunu wóllëre di lépp nga teg ci bisu sëñ Moudou Moustapha bisu Alkarim ren di 19e lan nga yëg bi nga teewee ci bisu. kontaan lool ci interview bi ci sa diggante ak Cheikh Moustapha Karim Cheikh Moustapha moom nit baax la koo xam ne bu wootee dina jàpp danañ ko bàyyi ñu tolluwaayam nit ku am ab yëg la nit ku bëgg lu baax la nit ku sonn ku ko sonn ci lu baax la moo tax loolu la waral sunu teewaay du ko jéppi député du ndax du leen sonal ci ay carte soutien ay invitation lay joxe ku ñëw mu dem ci boppam ak Pastef fi ci bis bi nga xam ne que euh, dara du manqué te léppay jaar yoon. dëgg la waaw Cheikh Moussa moom jukkoom jooju mu yor dañoo ñu turandoom ci way gi ci diggante gi boo ko fekk fenn it di ko di ko di ko di ko di ko xeeb ci dara fépp foo ko fekk itam jëpp mooy taaral liggéey Sëñ Tuubaa bi rek la moo tax bu ñu xewlee lu ñu jàpp dañ koy bàyyi loolu moo ñu andi yow it sunu xarit nga non noo ngi lay sant yow it ma ne yow it sunu xarit nga noo ngi lay sant di la gërëm yow it waxtu bu nekk ah. fu baax nekk yaa ngi koy xencu noo ngi ñaan Tektal TV sa borom yokk ko amiin télé ba nga xam ne dana dana àgg fépp ci àdduna bi sunu xol seet na a baax baax a baax léegi nag ñëpp ana la si rafaxtu Mustafa al fii xaaba xaw sayn maal jaylaani borom jaasa woyuma sax dama laa bëgg a nuyu rek déedéet woyuma woy fi tey jii warumaa jàng bu nu tuddee njaasaan ca tëgguma yonante bi duma xam li may sëñ ma fari njaay bi sëñ tubaa tukkee dafa jaaxle woon yaakaar ni sëñ Tuubaa dina del si wala du del si ku mu dégg nitu yàlla dem fa di xool bax dina am dara luñ ko wax ci sëñ Tuubaa ba mu dugg ci sa maam mu wax ko ne ko ci gàttal rek ndax man addi su ma jànguma damay def seere rek ci gàttal mu ne ko kuy sa sëriñ bi nu wéetee mu ne ko man sëñ Tuubaa sama seriñ mu ne ko moom lan jàpp mu ne mu ne ko lu tax ñu jàpp ko mu ne ko li mu nu dajale jëmale nu ci yàlla sunu ruu yi mu tàmbali di ci sorog leer ba kenn mënatu koo mu ñëpp jubal si ci moom ñu defee ne nguur lay wut moo tax ñu jàpp ko tubaab bi yóbbu na ko mu ne déedéet yow maa la gën a xam sa sëriñ la ko wax sa sa maam moo ko ne yow maa la gën a xam sa sëriñ an allah kasafa ala al awliyaa maqamin ma ansamil balwa ca mi nanu baaxil xadim yàlla dafay yëkkati nitu yàlla yëpp la ko wax dajale leen ca pays yi ñoom ñëpp ni leen maqaamaa ngi boo xam ne nii maqa euh, euh, nattu yi gën a kawe lay doon borom Ndiassane nee na kenn attanu ko kenn attanu nattu sëñ Tuubaa bi na ni keroog li may ñàkk-ñàkk solo fekke naa ko waaye kenn ku ci attan nattu bi amut ci nitu yàlla yi wala mu dara sax si waa si sayxu ko la ko wax kenn attanu ko ku du sa sëriñ moo ko ne dëggeeñ wey sa nay sa yekkunu wa sa yar joxu saaliman léegi mu ñëw te dara du ko dal barke mooy nekk ci loxoom kum fi fekk ak sab taalibe dina ca nangu sulëf loo jàmbaare jàmbaare soo góorgóorloo ba dee say taalibe lu mu jur taalibe Sëñ Tuubaa lay doon ba ma ko xamee laa ko bàyyeeg Sénégal man maam buun dem ca Malek Guinée wuti fay taalibe boo demee jaasa rek e bambara ngay gis ah yow sama waa ji ma dëkkal géej way sëñ xaadim mii rajo bi dama ko laalaat faw ma nuyu la kamal yal na nga am jàmm yow yi ak kole dara yi ak soirée yaa tax mu jeex géejawa yi yow mii boo gisee borom daaru yow doo rus boo gisee sëñ Subayru doo rus jërëjëf ziar naa la Cheikh Bara Ndiaye def gis nuyu naa la yow du ma téye micro ca nuyu yow du ma téye micro ca nuyu wuma la soxlay jàngkat yi yaa ci man soxlay waxtaankat yi yaa ci man doonu ñooru doo tëju nit ñi ku loo am jox nga leen ko ca ku am bés nga taxaw ko fii nga ñëw war nga fee ñëw ndax da ngeen a nuroo jikko yu bari ak moom waaye yow mii yow de xam nga dama fekk ci benn place ma jël micro yow ci ma la yow mun ta nekk waaw maa ngi aar sama xarim xarim jàng tayif dama doon soxna Astu rek taxoon ma laal micro maa ngi jégalu waa kër sëñ Daaru Asan man dama koo fan sëñ Moussa Ndiaye Rasa xam na loolu man dama fan sëñ Daaru Asan ana borom jinne yi mag ngi lay siyaare bu baax te di la màggal rajo bi laay bañ a laalaat yow mii may ma ñaari minute max la kii moo amu fit sëñ Moustapha Ndiaye alkarim mii mooy boromu fit xam nga lu duy fit bu la joxee bagage yi mag nga yor ko dangay ngay ñemeñ bi muy ñëw fii waxul ci kenn ci yow lay dal bi muy ñëw ci yow waxul ci kenn lay dal daa envoyé ab avance ni nan ma wutal néeg ñu wutal ko néeg mu ñëw daju ci néeg bi xaarul kenn peewulee la doon dundee ndaxu fitam xam ni yoon na lu wóor rajo bee tax ke mais kii waajuram dañu woon bis mu jotee fi ñëpp jot lu nit li mel dina ni te bàyyi bu yaa waajuram daa téye ngërëm mu ñëw fii téye fii Fass Mbao fii ba lépp fekko ci baas Fass Mbao baas baa ngi xaajar yaa ngi ci baas baa ngi tiijaan yaa ngi ci baas baa ngi laayeen yaa ngi ci su ay taalibeem ñi ci ëpp ay tiijaan lan loolu mooy aw fit yow ya baax yaa yiw yaa ami teggin sa moroomi waajur yi bàyyi sa moroomi waajur yii sa sa moroomi waajur yii xam nga ne ab yar moo moo leen indi sa baas bi jàngkat yii saa bu may wax ñoom lay waxal ku leen amulul njariñ doo leen gis ñun sëñ Tuubaa nu yor kenn yorunu bi nu sëñ Tuubaa boole ci xasida yi lan doon dara ku nu dul jariñ dara doonu gis foo leen gis ñu dajaloo sëñ Tuubaa fa ne seetulu kenn ku dul sëñ tubaa nang isee ba jëppi leen woote ca ñëwulu doo gis kenn kii nag moom saqum ndóol la day joxe di digle di dimbalee ci saayir ak ci baatin soxla su mag man sama bët musul xonq te kii faju ko weexalu ko te bu te anduus la koy def di ko defal sama benn bëñ bi nga xam ne daa fonk ca weex te moom dong lay socc muy sama yaay man moo ma gënal ñépp moo tax ma fonk kii maa ngi lay ñaanal waaye nag waaye nga yem ci kaw ngi si Ahmadou Moukhtar ko woo téléphone bi nu jógee Lamp Fall xam nga yi faaw nu wax ko nu xam mooy kan moom mii moo ko jéggal waaye da ko doon day ñëw moom mii moo ko jéggal si Ahmadou nag la ma waxoon ca télé ba daa am xam-xam yépp jeexal ko wodde ko noppi di doomi Seex Mudu Musaa joo xam ne lépp la xam doon lépp ba noppi yaru ndax yoon wi noonu la baaxol ba pare teg ko loxo moo ko wax ci sunu kanam ni ko damaa xool sa xol bii dara nekku ci dudul Cheikh Moustapha moo ko ci sunu kanam Cheikh Moustapha mii ku ànd ak moom ku ne sa say morom dalay ñëwaa doo ñëw kenn yaa wax ni ma laa ngi ni am asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa sama xel dafa dem léegi wax ja sëñ Tuubaa waxoon ci masaalikul jinaan wajadtuhu xat sanafal axbaaru fiihi dafaatiran laha asraaru ka cheykhina al mujaddadi al gazali wabnu ataa illahi zil maali wa cheykhina al kunti zil anwaari xawzul wara qutbu raxal muxtaari wa cheykhina al xalifati al muayyadi bilxaqi min rabbil wara muhammadi wa gayru zeyni ma ma yuraqi darara sëñ Tuubaa nee na lakinnama kutubuhum li tuuli jahida biha jullu haadal jiili waxaat na ci biir soxna asu samaam la sëñ Tuubaa naan asaaruhu fi juzwatil anwaari fi zabbi an manasibil axiyaari ñu ne ko ki ngay wax kan la mu ne li sayyidil muxtaari zil anwaari alayhi ridwaanu ilaahil baari lakinnama maarifatul wali asabu min maarifatil ali li annahu jalla kamaaluhu zahar bila xafaari inda kulli man nazar sëñ Tuubaa nee na amal wari fa huwa zindikaamin min xayri ma yakunu fi l anaami li aklihi wa shurbihi ma al wara wa gayru zeyni wa yaaqi darara sama moo ko wax ca Masaalikul Jinaan sëñ Tuubaa dafay fekkoon ay téere téere yoo xam ni téere tasawuf la woon benn bi Ihya Ulumuddin la imaam Ghazali moo ko bind beneen ba xikam la ibnu Ataaillahi moo ko bind moo tax mu daan ne wam nu Ataaillahi zil maali bëggaat fekkaat fi beneen téere boo xamante ni ku ñuy woowee Cheikh Sidil Muxtaarul Kunti maami soxna as soo ko bind mu tudd juzratul anwar fi zabbi an manasibil axyaar moo tax mu naan wa cheikhina al kuntizil anwaari rawzul wara qutbu rahal muxtaari fekkaat fi beneen téere boo xamante ni maami soxna Astu Kuntoo ko bind mi ngi tudd junnatul murid Cheikh Cheikh Sidi Mouhamed Khalifa bind ko mu daan ne wa cheikhina al xalifatil mu ayyad bil xaqi min rabbil wara muhammadi sëñ Tuubaa ca Masaalik moom lay wax ba tey daan ne amma kitaabu cheikhina najibi ani lazi yudaa bi nafxi tiib salaatu ala nabi la faqad xawa maqtisaari kulla ma faraqahu almusannifuuna alqudama tuuba liman yaqra'uhu muabida li annahu yakufu lahu lagada sa maam lay waxal yow lay waxalaat sa maam ba tey daan ne xam waliw moo gën a jëfe fuuf xam sunu borom subhanahu wa taala ñu ne ko sëñ tuuba li ngay wax foo ko jëlee mu ne maa ngi ko jëlee ci ci ci ci bindub Seex Sidi Muxtaar Kunti mu daan ne fan la nekk mu ne ci Juzbatul Anwaar la nekk lan la wax mu daan ne amal wali lakin na ma maarifatul wali asabu min maarifatil ali li annahu jalla kamaaluhu zahar bila xafaari inda kulli man nazar amal wali fa huwa dintikaamin min xaysu ma yakunu fi l anaami li aklihi wa shurbihi ma alwara wa gayru zeyni wa yuraqi darara xanaa fii murid dafee newul waaw damaa bëgg muy fitasu rek fitasu rek ndax Sëñ Tuubaa soxna asu samaam la naan sëñ Tuubaa di wax naan yaqulu ahmadul haqiru jidda التوبوي القادل وردا الحمد لله على كون قديم لقدرة القرب المكرم الكريم لسيقنا المصرف الجيلاني لا زال عند الله زار دواني أشكره شكرا يدوم أودا على تعلق بأروة الوسقى مودو سن مصطفى بايك غني دك غار تخوت بريغان خما دنجن مام ديت ماني دك غار تخوت بريغان دي wallahi ku wàcc xam nga fa nga jëm kon ku ku dajale mbooloo mu toll nii waxuma la ak deret yént yàlla muhammad sallallahu alayhi di jigéen maa ngi laa yégal ni jaan bu la màttee doo laaj ba xam jigéen laam góor la dangay ngay ji rek am déet mus ngeen a gis ku jaan matt mu naan jaan ju góor a ma matt wala jaan ju jigéen mus ngeen koo dégg jaan ju la màttee moom da ngay dem lugg ji ñii ñooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax naa la léegi li ci sëñ Tuubaa wax bi urwati cheikh alladi la atruku awraadahu ma daama ardiqi soxna astu dinaa ko def te kenn du ko wax barke yeggu ci boo baaxul woon làmboo wa baax ci biir ak biti doo dajale sa mbokk yu baax yi ànd ak ñoom ci tànt bi fa tabaarakallaahu liñ doon wax mën nañ koo gën a guddal waaye ndox mi day tuuti mënuñ cee naan lu bari ñu doon ubbil sëñ sëñ Habib mu tëj ko fa tabaarakallaahu ndax soxna astu sëñ Moustapha dafa fonk bis bi ba tax mu jël képp koo xamante ni yaakaar nga ni am nga cër ci moom mu jox mu ànd ak yow ci jotaay bi fa tabaarakallaahu oustaz Habiba ngi suñu ginnaaw ñu jox ko mu tëj kàddu yi ñoo ngi jégalu ci kàddu gi bu baax a baax fa tabaarakallaahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillahi alkabiri mutaal saaxibi alizzi walkamal walazamati waljamal walqudrati waljalal almunazahi an alnaqsi walzawal almacbudi inda الأبصار منشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم الصلاة والتسليم على مجمع البركات ومزهر الرحمات ومفتاح إيجاد المحدثات وخاتم الرسالات وديوان الكمالات الحادثة sayyidina muhammadin rasulillahi adada al adad wa adada mawaqi al adad wa bila nihaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiya allahu an cheikhina wa muhibbina wa murshidina wa munqidina wa qaidina abil mahamid al cheikh abi muhammad al kunti jazahu llahu anna wa an al islami xayra al jaza ala ma qaddamahu ala xidmatin jalila li nasri daawati alislaam wa taayiidi manhaji sufiya wa an xulafaihi alabraar wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin amma baad ayuha alixwa ayuha alxuduru alkiram baadi adi badiin ashkuru lilqaa'imiina bi hadihi aljalasa وهذا الجهد الكبير الذي إن دل على شيء فقد يدل على اهتمامهم بإعلاء كلمة الله ونشر أو دعم تعاليم شيوخنا الكبار ونحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة الخالدة ala wa hiya assalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jéggalu ci jotaay bu yàgg bi ak kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamu jëmm yu tedd yi ak kilifa yu màgg yi woyofal seen bopp lool toog ci suuf ñu tiim leen ñu leen di jéggalu ci loolu di yëkkati kàddu cant jëmale ko ci njabootu Cheikh Ahmadul Xadim yépp waaye ci turu soxna Astu Kunta bint El Hadji Mambu Muhammad Kunta la ñuy waxee kàddu yi nga xam ni ñu koy rotal dañuy wax ni asalatul rayi saanat ni an il xatali wa xilyatul fadli zaanat ni ladal atali majdi axiran wa majdi awalan sharaun wa shamsu raada duhaa ka shamsi fi tafali soxna Astu Kunta comme ni ko Cheikh Sidi Lamine waxee eh, jaan du màtt ñu naan góor laam jigéen jaan ju ndaw ak ju mag it ñoo yem bu ci màtt dangay ngay luggi euh, yàlla def mu bokk ci tedd ngay ki nga xam ni nii njëlbeenam ak mujjam ñoo yem achamsu raada doxa ka chamsi fi tafali jant heure ba muy fenk ak heure ba muy so yépp jant la jant heure ba muy fenk ak heure ba muy so lépp jant la kon tedd nga gi nga xam ni mi ngi ci dereetam bàyyi ko ci ay maamam ci njabootu kunta bàyyi ko ci Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ni kii mi ngi ko doon tudd Cheikh Sidil Lamine te Cheikh Ahmadul Xadim di ko tudd lu bari ci ay mbindam lu ci bari bu koy tudd Cheikh naar lay wax moom moo indi baatu Cheikh naa boobu nga xam ne ñu ngi koy woowee Cheikh Abdou Khadir Jeylaani le euh, Cheikh Sidil ak Cheikh Mouhamadul Khalifa ñoom ñëpp bu leen di woo seex naa la leen di woowe ñàkk ki ñaan nag moo nekk ci Cheikh Ahmadul Khadim ba nga xam ni lépp loo xamante ni nii fekkoon na ko fi muy ak mbaax jéemu ko suul mbaa mu koy sëkk waaye daf koo yëkkati feeñal ko ndax bu ñu xamee njàngaley mag ñi fii ci Sénégal Cheikh Ahmadou Karim da cee liggéey liggéey bu rëy da cee liggéey liggéey bu mag a mag ba tax ñu xam njàngaley mag ñi ndax xëy na ñoom maman bañ doon bind lañ doon bind ñi ko doon bind ci ay uslub yoo xamante ni nii xëy na diis na walla méngoowul ak jamono bii ñu ne walla ñun euh, xeet yi ñu bokk wala làkk yi ñuy làkk ba xëy na dégg ko doon na diis ci ñun boo amul yenn niveau yi Cheikh Ahmadou Khadim daal di ñëw daan ne amma alladi xawal eh, xusuusa fa huwa ma naati bihi aydan huna muntaziman qad wajadtuhu qad sannafa al axbaaru fiihi dafatira laha asraaru ka cheikhina almujaddidi alxasali wabni ataillahi dil maali wa cheikhina al wa cheikhina alkuntiyi dil anwaari غوث الورى قطب الرحى المختار وشيخنا الخليفة المؤيد بالحق من رب الورى محمد وشيخنا المفسر القرآن محمد المنسوب للديمان وغيرهم من المشايخ العظام jamaana allahu bihim yowmal qiyaam fii nag moo ma taxaw di wax mooy waqf bi mu ne lakinnama kutubuhum li tuuli jul li tuuli jahida fiha jullu haadal diini sëñ Tuubaa ni lii ma ñëw di ci liggéey di ci bëgg a bind muy li aju ci tasawuf muy ilmul xaqiqa muy al ixsaan ma ci bind fekkoon naa kamfoore yi bindoon ci tudd ñii bind nañ ci te Cheikh eh, Sëñ Lamine Samake tudd turi eh, waaye boo gisee man ma ñëw bëgg caa bind mooy ni dama fekk ni seen téere yooyu dafa guddal ba pare andi uslub yoo xamante nii ñooñu jamono bi mënuñu koo dégg tax mu ne lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiha jullu haasa jiili faxtartu dastiaana bilwaali nasma allati nasarahu lyadaali fa jitu fiihi bi kitaabin bi kitaabin qad hawa shifaa man asqama qalbahul hawa waaw Tuubaa ni ma ñëw nag tànn ci téere boobu nga xam ne nii ku ñuy wax <clears throat> daymaan moo ko bindoon moo ko wesaroon ma jël ko segg ko defaraat ko génn ci loo xamante ne ni mën naa saafara bépp xool boo xamante ne nii seytaane jaxasoo war nag moom ba yàqu ko kon moo gàttal liggéeyu mag ñañu yañu guddaloon mbaa uslub ba difficile woon moo ko gàttal ba tey ñun ñu mën cee jariñoo kon yàlla na yàlla fayal ñu Cheikh Ahmadul Khadim moom mi nga xam ni moom moo ñëw seggaat mbind moo mee guddoon mbind moo mee dëgëroon mbind moo mee wala téere yooyee jafe woon mu ñëw seggal ñu ko defaral ñu ko ba ñun ñi nga xam ne suñu xam-xam dafa gàtt ñu mën a jariñoo tey mbind moomee mag ña bindoon kon yàlla na yàlla fayal ñu seexul xadim waaw Tuubaa boroomu mbaax la mu ni bu jël rek ak mbaax wala xam-xam wala wilaaya di ko jagleel ña jiitu woon kese mbaaxug yàlla tedd nga yàlla bu ko jël rek jagleel ko ña jiitu woon kese waaw mu ni ndax kat yàlla mën naa woon as loo xamante ni nii jafe woon na ci ñi nga xam ne nii ñoo jiitu woon jafe woonoon na ñu dégg ko mbaa ñu xam ko yàlla mën na koo won ci ñu mujj ñi mu ni fattallu qad yabdu amaamal wabli mu ni tawu bàndent mooy taw tepp-tepp dafay jiitu taw bu mag mu ni waaye la ñuy xaar te soxla ko ci suuf si mooy la taw bu mag bay indi wal fadlu li tolli lil waabili laa li ngëneel bi nga xam ne mooy ñoral gàncax gi ca waabil bala ne waaye newul ca tàll ba te tall mooy jiitu waabil kon yàlla yàlla fayal ñu seexul xadim kon sëñ Moustapha soxna as Kunta nee na mu ngi lay sant mi ngi lay ñaanal mu ngi lay gërëm ci teraanga ji nga xam ni defal nga ko waaye nag teraanga da koo def it fu mu fu ku ko méritoo li tax ñu guddee ñëw tey ci yu mel nii lay yendu tey ci ay xew-xew yoo xamante ni nii dañ ko koy tudde mbaa ñu jagleel ko ko bu xëyee ci lay dox suba ba ngoon amul benn bis boo xamante ni nii dina dem ci benn xew kese waaw tey jii daanaka timis ma ngi ko fekk ci suñu dëkku maam ba la ñuy wax ndeer ndeer naar dëkku maam Seydi Xuya nga xam ni wëllëre ku amoon wëllëre ak sëñ Touba ñooy gàmm tey fa la ko fekk kon soxna astu bintu eh, alxaaji mambu Mamadou ku méritoo la lii nga xam ne nii ñu ngi ko koy defal ndax ci diine lañ ko yar ci njub lañ ko yar ci maandu ci yar lañ ko yar waaye dafa bëggu lépp loo xamante nii diine da koy yëngal rek moom soxna astu ci loolu lay yëngatu doo ko dégg ci co caaxaan doo ko dégg ci ay fo doo ko dégg ñu koy tuddee lenn loo xamante ne nii mbirum caaxaan la wala puukare la fàttaliku mag ñi nag di leen taxawal ay bis day yokk suñu pas-pas ci mag ñi waaye day yokk suñu cofeel ak suñu mbëggeel ci mag ñi kon ñi may won ni waxtu bi dafa xat bu fekkee dañoo guddal ñi ngi leen koy jéggalu a ah, bu ci lu ci jub ci yàlla la neex ak soxna astu ni mu ñu ko sawe woon ëppoon na lii ak kilifa yi ak seen ñaan lu ci dëng nga xam ne suñu ñàkk suñu gàtt àll wala ak suñu ñàkk mën a wax wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu jërë ngeen bisu alkarim gis ngeen ñii sol sol bu weex tàll euh, ñii sol sol bu weex tàll ngi nii euh, bitu bésu sëñ Moustapha Ndiaye alkarim bis maa ngi nii neex na bu baax a baax Baye Fall yaa ngi dóor fii nag moom dama feer sori fii la barkeel yi am euh, ah déet ki dafa maa bëgg a dugal man nag ay problème dara laa ci waxul waaw ambiance bi alkarim bi tàng na bu baax a baax a fii nag man nitu jàmm laa jàmm lay dox xaaral sori kuur yi bu baax a baax petit petit saw teem laa jox micro bi wax leen yaay borom daara ak Serigne Touba Mbacke Kamalou Bamba kase rek dong non fee fa dem ne fii lay nekk. Kamaalu Bamba Xaadimu Rasuul. Kamaalu Bamba Xaadimu Rasuul. xaaral ma féete côté jigéen ñi sax moo ëpp jàmm parce que ku yor kuur moom fii moo gën a ëpp jàmm. xaaral ma jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabatihi ajmain salli ala saalihi wal muslihu asaadiqu asiddiqu salaatan tuslihu salli ala xawsin wa qaysin wa qiyaas wa salliman yaa man maa bila tiyaas salli ala baaliqi wul xaqi ma salaamin qaayidil xaqi noo ngi sant yàlla xam naa ne kàddu yi du gudd kàddu yu gàtt lay doon day kàddu yu cant rek ndax waaw may leen lu ak déglu nag day kàddu yu cant rek di nuyu di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te di ñaanal sëñ Basiru Antañang xalifa maam Cerno mu yàgg fi di ñaanal mbooleem xalifa yi toog ci toogaayu lislaam ci mbooleem réew mi yàlla may leen tawfiix ak jàmm di nuyu bu baax jataay bi yëpp di nuyu soxna astu Kunta di ko nuyu di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ak tawféex di ko tatagal ci ndaje mi ndax ñun ñoo ko war a tatagal ndax lu rafet li mu def ak lu baax li mu def ndax wane na jikko ju rafet wane na yëpp wane na mbaax ñuy ñaan yàlla sàmm ko te àggaleel ko yéeneem ak liggéeyam ci kër maamam ci barke maamam ci barke sëñ tubaab mi nga xam ne ñoo ko bokk di sant bu baax di ñaanal Cheikh mu Ndiaye mii nga xam ne ak xamam ak sama xam moo jiitu xamu Cheikh Moustapha al Karim mi ñu xamante bu yàgg-yàgg mu doon sama xarit ñaanal ko yàlla sàmm ko taw féexal ko bu baax a baax te may ko jàmm ak taw féex di sant Cheikh Bara Ndiaye mais nga xam ne wax dëgg yàlla moom it sopp nañ ko lool ngir daa pànk pànkam gi mu pànk nag mu ma neex ma man nit bu pànkee damay neex ndax euh, am murit dafay xam boppam te nam mel neex na ma ñu lay gën a encouragé nag bu baax ci taxawaay bi ngay taxaw xam ne ñoo ngi lay gis ñoo ngi lay bàyyi xel waaye doo ñu xam waaye ñoo ngi lay bàyyi xel bu baax yàlla sàmm la taxaw la di sa di sant bu baax sama mbokki sëriñ si fi toog yépp mboole seen sëriñ sépp maa ngi leen nuyu ndax doon kilifa am kilifaa ñu ko gënal mbooleem yi fi nekk ñépp te mag ñu suñuy kilifa lañ ñiñ ci magit jël nañ suñu kilifa jox leen ko dooni taalibe ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi jéggulu ci kàddu yi di jéggulu it ci luy nuru yëngu-yëngu ak i dérangement maa ngi koy yëngu maa ngi koy jéggulu mbir moom mbir a mel noonu rek kenn ku nekk na nga toll rek noonu ngay doxe Cheikh mu Al Karim mii day nit ku baax day koo xam ne jikkoom ako meloom tax na ma ñeme ko man dañoo bokk jikko ndax dafa dox doxinu aw sang di nit koo xam ne itam li ko ñor lu baax rekk la bis bii mu def ni mu toll nii nekkul bis boo xam ne da ci bëgg dara walla mu def ko ngir dara waaye mi ngi def rek ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ak Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moom la def xolam nit la koo xam ne ku ku jaxasuwut ak moom doo ko xam te nii mu mel ñu bari mën nañ koo seere bu dul tudd gii moo tuddee ci bis bi dootuma ko tardeeti at mu jot te jàppante na ma ak moom jàppante goo xam ne dootu dakk di ko ñaanal nag ak moo leen fondation Al bépp ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bi ñoo ngi leen di ñaanal bu baax te wax leen ne leen jàpp leen ko bu baax te téye ko te xam ne boo amee ku mat te koo xam ne nii dencul ngir suba lu mu am mi ngi koy def te yàlla rek a tax na ngeen ko jàpp te xam ne kooko njariñ la lu mu am bokk na ko ñëpp te lu waaye am bàyyi na la ko kon nag sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu dina wax ne ni mu demee rek la Daaru Muxti ji moo jub daanaka samedi tey ji bu deesee la yaa ma ko jaral nag yaa tax déw ma sax daaru tey waaye damaa bëgg na dem daaru keroog ca altine bële laa bëgg na dem daaru Muxti waaye yow bu ma nekkoon daaru sax su ma soo ma ko soo ma waxee damay ñëw fii bu doon daa tombeeg bisub daaru sax danaa fexe ba xaj-xajal ko ci ñëw ndax fi ma la teg bul jaa bul yaakaar ni mukk dama laa cof ndax xam naa la bu baax fi ma la teg fa laa teg sama bopp te man sama bopp ma gënal ñépp foo ma teg sama bopp fa laa teg kon nag maangoog yaangoog nañ jàppante bu baax te xam ne la ca kanam mooy dàq la ca des nag mooy ñu ñu gën a góorgóorluwaat ñun ñëpp rek te xam suñu bopp jamono toll na foo xam ne bu ñuy def yii wala ñuy nekk di cant wala ñuy nekk di woote wala ñuy nekk ci leneen ak leneen bu leen yaakaar ne mukk nag dañoo bëgg a dund dund ku ko bëgg am na noo ko war a mën a defee ba dund waaye fi mu toll nii dafay bëgg ñàkk ay nit ñoo xam ne mën nañoo jël engagement am fit taxaw taxawaayu nag. doon ñoo xam ne dañuy doon ay Cheikh Ibrahima Fall doon ay maam Thierno Birahim doon ay mu Moudou Moustapha looluy bëgg a manqué mooy ñu gën a ñu garanti ñoo xam ne seen wéet ak seen wéttaliku dañuy dañuy jël seen tubaa def ko muy seen yitte jël seen tubaa def ko seen yitte loolu mooy bëgg a manqué ndax fita fii bëgg a jeex ndax léegi xoqatalkat yi bari nañ nit ñi nga xam ne tekkiwuñ dara amuñu dara ba noppi fekk ñi am dara ñu bëgg yàq seen dara jooju moo fi bari te fi mu toll nii réew mi booy wër dara ba dajeeg sëñ tubaa jàppale koo gisatu dara ndax dara yépp sëñ tubaa ko moom sëñ kunta mi wax na ko léegi boo jàngee Masaalikul Jinaan gis nga ko ni sëñ tubaa di fédéré maanaa ni muy boolee ak ni muy baaxee ci xolam mbooleem lu waay yor cër boo yor dala ko bàyyee loo yor dala koy bàyyee ba noppi nag di la ko di la ko ak di la ko yëkkatil du du saboote dara cërub jàmbur du ko ca du ko saboote moom seen tubaa kon bu ñu demee ba jamono ñuy saboote sëñ bi ñi koy saboote ñoom ñun ñii lañuy saboote ñun waaye saboote wuñ sëñ tubaa ñun ñoo war a taxaw kuy saboote sëñ tubaab nañ nañ jaar sa kaw jàll ci dëgg ak fit ak jom ak ngor ba noppi fu ñuy saboote sëñ tubaa bu ñu fa taxawee kuy saboote sëñ tubaab bu ñu gisee day day daw làqatu nag ci ginnaaw internet yeeg wax yooyu moom waxuma ko waaye man damaa bëgg ñun murit ñu xamaat li ñu sëñ tubaa defaroon muy puissance bi ñu sëñ tubaa defaroon ci xol ba suñu gëdd wala suñuy wax rek boroom fit wu dégg dana xam ne kii wax fit la am waaye ragal bu ñu dégg day daw day daw foofu laa bëgg ñu nekk fa mooy fexe ba xam ne ñun sunu bakkan yii ak sunu jëmm yii amuñ ci dara sëñ tubaa ko moom ndax fi mu toll ndab loo fi gis mu am dara muy ndabul maam Thierno ndabu sëñ Mourou Moussa Faak ndabu sëñ Fallook ndabu sëñ ma Samba ak ndabu Cheikh Rafal ak ndab yépp sëñ tubaa fa def sëñ tubaa gore koo fi dégg ak mbaaxam sëñ tubaa def lool def loola fi ñu kenn deful dara sëñ bi def lépp loo ko defal rek defal na lu ko raw moom sëñ bi waaw sa maam bu defee li gën ci moom ba ñëpp di ko naw sëñ tubaa defal na ko loo xam ne nii sa maam mënu ko kon nañ sagal sëñ bi ci sunuy jëmm sagal sa sëñ bi ci sunuy wax waaye sagal sëñ bi ci suñuy wéet ak sunuy wéttaliku waaye am na ñoo xam ne ay murit lañu dañuy wëndeelu nii rek xaftaanu rëy lañuy jaay ak yi mbaxana waaye jaay nañ sëñ tubaab bu yàgg dunde ko nañ bàyyi yooyu am na ci sëriñ soo xam ne fu ñu toog wàcce nañ seen bopp mën na ñoo foral dàll koo xam ne ñoo waroon yónnee am na ñoo xam ne ay fu ñu toll ñoo waroon a ñoo waroon a ñoom lañ waroon a ŋàbbal ay dàll ñoom ñoom ñoom lañu waroon a ŋàbbal ay dàll di leen di leen doxal ay yónneen ñoom ñooy mujj di doxal ay yónneen ñoo xam ne seeni maam say maama leen daan yónni waaw boo ñëwee ci kër sëriñ su bari léegi lay lay tax taalibe yi découragé mooy sëriñ boo fi gis léegi ña koy jox la gën a fonk ña ko joxut te taalibe yi nga xam ñoom la ñoom ñoo la topp di yuuxu sa tur wii di bàyyi seen ndey di bàyyi seen bàyyi di la topp lu ñu am yéene la ko nga bàyyi leen ca bitti ña nga xam ne am nañ dara nga téye leen jàpp na ñooñ ñooy dara ñooñ duñ dara alal ak lépp duñ dara sëñ Touba rekee dara kon kun fiy topp sëñ Touba tax nanu fexe ba gore gore rek mu am solo gore mooy bu ñuy lekk keccax nañu gore bu ñuy lekk yàpp nañu gore bu ñuy lekk ginaar nañu gore buñ bu ñu fandee nañu gore nanu xam ne gaay yi li ñu yor mooy seen ngooñ ngooñ yi ñu yor di ko xontu gaay yi bañ ba seen mbàq yi fees dell mënatuñoo am wilaaya ñun nañu fexe ba ngooñ moom nañ ko sànni fële te jël ngooñum sëñ Touba mi nga xam ne nuurul wilayaati la nga xam ne boo ci naanee mandi ba faaw loolu rek mu am solo kon Cheikh mu jërëjëf yal na yàlla sàmm la te taxawu la te kàttanal la maa ngi lay ñaanal yàlla nga suñu borom yëkkati la te taxawu la ba ba foo bëgg àgg nga àgg fa ci barkeb sëñ Touba jërëjëf. Serigne Khadim Mbacke su ma neexee ne Ousmane Serigne Khadim Mbacke Mixdaat. sëñ Xaadim Mbàkke Aydara sëñ Xaadim Mbàkke Muudu Awa Balla sëñ Xaadim Mbàkke Cheikh Awa Balla sëñ Xaadim Mbàkke Dam Faati sëñ Xaadim Mbàkke Muudu Abib sëñ Xaadim Mbàkke Muhammadan sëñ Xaadim Mbàkke Serigne Cheikh Khadi Serigne Xaadim Mbàkke sëñ Bass Anta Ñang Serigne Xaadim Mbàkke Serigne Khalil Cerno Ibra Faati am saloobe Maram Xacc yow desoo ginnaaw kenn yóbbaaliwu la yor yor di alxames la judd ci Poroxaan yor yor di alxames la tàbbi fii ji keroog bi maam Cerno juddoo ci la takku keroog la Bamba xam ne am na lan doon sàkku fekkoon na Cheikh Bamba di ñaan na buur yàlla jàmbaaj askano ci Mbàkke Balla keroog maam ànd seli naan ko sa ñaan nangu na bis booy doon rasulillahi ceernoy doon so omar mbaasam aliyu billaay nu subamba doon moussa mudim aaroona seeni mbir ak yooyu la mbir nuroona nu ku weddi laajal naare juge woon soo naare jugoon bii daan seen gag ya jàlloon ñëw réewi soo daan sëriñ tuubaa naan sëriñ tuubaa naan na leen maam ceerno gàgganti man si ahmadou bamba bisu penc lijjanti keroog la sa maam gàgganti naar ya tasaare max naa ya ni te laadul mool ya ah ah waaw waaw maam Thierno Ibrahima Fati moo njëkk a sukk mu jee kun fa yokku ko dugal mboolem seex yi moo leen gën yow di tey loo am maa ko moom lu ma am yaa ko moom Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko maag yow bokk fi nu yàlla fayee ëllëg léegi nag damaa bëgg ñëpp dal mbaa man mii wax ma wàccee micro bi nañu dal Cheikh Moustapha Ndiaye Al bis bi dafa alaa daw dama ne bis bi daa alaa daw me sëriñ Abdoulaye Mbacké ngi nii toog mu sëriñ Aliou mu Cheikh Modou Moustapha dend ak sëriñ Ahmadou Mbacké mi nga xam ni bii ma sa reetaanee ak léegi tant bu ma dugg man maay xool nu ma ko bëggee rek bu ma neexee nit ñi ree bu ma neexee nit ñi jooy ma neexee nit ñi daanu ni sa baay maa ko fekk ci kër sëñ Tuubaa gi ci jumaa ma ne dar am ku ma ne noppil ma ne ko waxuma ak yow mu ne ma koy waxal ma ne ko 1963 la sëñ Fallou inauguré jumaa ji ni sëñ Abdou Lahad ko yokk peinture Serigne Saliou ko karale Alaaji Baara moo tàllampi waaye Ahmad Mbàkke bi sa baay ñëwee ñëpp ne liggéey bi jeex na ni sa baay moo jël juróomi soorool Touba yi indi Dakar juróom-ñaari na mu yóbbu Touba moo tëj armel yi moo ubbi Bakaya moo toxal garage bi jëlee fédéral bi posodot ila Touba samp université bi le talent de Kër Ngana noble de Mbacke Kajoor propriété de Guy Mbind Sëñ Bamba Serigne Baara Serigne Seex Mati lay sa baay bi ma sa baay reetaanee la ma ay ree sàppi yal yàlla guddal sa fan sëriñ Cheikh Abdou ngi nii toog moom sëñ mu Dan moom Cheikh Abdoulaat di jàmbaar bëgg baayam lool ni sa nit ku baax Cheikh Modou Moustapha Mbacke moo taxawu sa maam ni sëriñ Abdoulaat moo ko yar def ci moom lii def ci moom yabal ko yabal ko kàbbu gay sëriñ Abdou Lahad na liggéey sëñ Tuubaa bakkan lay laaj Cheikh Modou Moustapha Mbacké tax ma gëm ko nu yokku jumaa ji Cheikh Abdou Lahad daare kaamil bi Cheikh Abdou Lahad kornit bi Cheikh Abdou Lahad aynu rahmati Cheikh Abdou Lahad ni kër mag moom bi Cheikh Abdou Lahad miiru jumaa ji Cheikh Abdou Lahad fooraat bi Cheikh Abdou Lahad yéen néeg la borom a tey fanaan ni sa maama nga daare kaamil dama ne bis bi dafa am marem marraine bi nag kenn du ne lu tax ñu tuddee ko ko seexal bu naa ma sa maam islamisation ko indi Sénégal magam Cheikh Bekkaay jóge Algérie bëgg koo jël ci far daat fiy des ni sa maam ne nag ni ku suul magam war koo wéttali looloo tax seexal bu naa ma sa maam a des fi waykat bi nee na ñeenti góor ya mu jëloon maam Paya Faye ak maam Coro Diouf maam ma du Jóob ak maam Rokhaya Kumba Sirif yaayu Seex Bekaay mi taw bi yar sama wasiila ni sa maama mu jee ñëw ci géew bi waaye moo jël pee Cheikh bu Mouhamed sa maam dama ne moo mujjee ñëw ci géew bi waaye moo jël pee buñ ñee kunta ñëpp ne Cheikh bu Mouhamed yow nag ngay paaka ñaari boor ndànk bu doon nag la buñ ko rayee deux sase ngay am alaaji Mamadou la alaaji Mambu la sa bay tudd alaaji Mamadou ko jur alaaji Mamadou Sadio Ba Ibra Penda Buya Aminta Yàlla xarimaam ndaak mareema ne yàlla ko jur Aminta Yàlla mu jur xarimaam Jóob jur Penda Buya jur ndaak xarimaam samaam moo jur Aminta xarimaam ñu jox ko ñu jox ko sëñ mu am ci sëñ Modou Moustapha ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Penda Buya sa maam dem na wure maat yi am fa Ibra Penda Buya Ibra Penda Buya jur Sadio Ba ñu jox ko Cheikh Bou Kounta borom mu am ci Alaaji Mamadou bàyyu Alaaji Mam bu yow bis bi da nga koo ay yooni yoon ñoo ngi xajjali waat sunu jaayante ak sunu yaakaar ci Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xadim al Moustapha mu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadou mu yàgg fi lool borom bay ba li mu yéene ci liggéeyal Serigne Touba lépp mu def ko mooy sunu sëriñ moom lañ yaakaar adduna ak àllaaxira tamit doy nu sëkk nag. dañ doy na ko sëriñ Abdoulahan Mbakke moom sëriñ Aliou moom cheikh Mouhamadul Moustapha jiite njabootug cheikh Mouhamadul Moustapha gi teewu ci jataay bi te ay rakkam la àndal sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbakke Muxtaar Sëriñ Muxtaar borom liggéey bu rëy bi di waajuram tudde ko sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifa Daarul Xuddoos jox ko ko sëriñ yaral ko boppam. da ngeen weer bu dara rek témoignage yi sëriñ bi daf ci digganteem ak sëriñ Sidi Mokhtar wax ne eh, bi ko tuddee diir bu néew la ci sëriñ ak sëriñ la la dem ci sëriñ Sidi siyaare ji jubee Màkka ñu am fu ñu tasee sëriñ Sidi Mokhtar wax ko ne ko Ahmadou ma mën a tuddee saa yow ñu bisee na nga ñëw jël si ko jox naa la ko boobee bisu tey jii nag génnul ci loxoy sëriñ Ahmadou Mokhtar moom sëñ Ahmadul Muxtaar nii waaye sëriñ Saaliw sëriñ Abdul Ahad it a ngi fi teew di caatum sëriñ Aliou sëñ Modou Moustapha di sëriñ Saalihu Mbàkke ñu ànd ak Daaru Xudóos gépp sëriñ Moustapha Fay Bayti ak sëriñ Moori Guèye waaye mën nañoo tudd it ci biir seen biir mën nañ cee dugal njabootu sëñ Daaru Xasan gépp ndax sëñ Abdul Xaadir Njaay ku sëriñ Ahmadul Muxtaar teew amatu fa kaddu te njabootu sëñ Daaru Asan gépp a ngi ni teew kenn desut mën nañ ne tey Daaru Njaay tey jii buntu kër yu bari wét na ngir bis bii ñu fajaroo Tuubaa ci ñu bari ci ñoom ci njiitul sëriñ Fallu Njaay moom sëriñ Abdul Hudud moom sëriñ Fallilu taawub sëriñ Daaru Asan wala xalifab sëriñ Daaru Asan bu njëkk moom mii moo doon xalifab ki njëkk wutu sëriñ Daaru Asan moom mii mooy ab xalifaam mu ñëw teew di sunu mag di sunu sëriñ di sunu xarit nit ku baax njaboote njaboot bi yëpp boo mbooleem ay rakkam yëpp nawloo ko fonk ko am fuñ ko teg waaye ñooy moom ànd ak rakkam yëpp sëriñ Moustapha Ndiaye ngi nii toog moom sëriñ Cheikh Ndiaye moom sëriñ Abdou Razak moom sëriñ Darou Hassan sëriñ Ndiir Ndiaye ak sëriñ Cheikh Mbacke Ndiaye ak sëriñ Cheikh Baara Ndiaye ak sëriñ Cheikh Ndiaye moom sëriñ Ngunda. ak mboolem njabootu sëñ Daaru Xasan ba ci sama jigéenu bopp bii di soxna Mariyamu Njaay kon ak mboolem njabootu sëñ Daaru Xasan wér na ne am nañu ñoo xam ne sët sëñ Daaru Xasan ñu ngi teew te tudd ma leen loolu leer na noonu te ñu jotaay bi kon waaye dafa mel ne su ma tuddee sëñ Fàllu rek yóbbaale na mboolem ku fi teew te sëtu ci sëñ Daaru Xasan te ñoom mën nañ leen dugal ci biir njabootu sëñ Ahmadul Muxtaar gi jóge Tuubaa ñëw teew si fii sëñ Abdou Lahad nuyoo baa ngi noonu ci sa loxo lañ koy teg mu jëm ci mboolem kilifay diine yi fi teew waa lislaam yi fi teew yépp sëñ Abdou Lahad Mbakke moom sëñ Moustapha Mbakke moom sëñ Modou Mbakke moom sëñ Balla Dior Mbakke mooy ñu ngi nii teew moom it mu ngi nii teew yor sama mag ju jigéen jee di soxna Fatima Cubb Njaay waaye di nuyu sama xaritu bopp di sama sëriñ di kenn ci man ñëpp xam ma ak moom sama njaboot ñëpp xam sama diggante ak moom muy sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Mahmadan Mbacké moom sëriñ Abdou Lahad moom Seexul Xadim mi ngi nii taaw am moom fi mu suñu diggante moom la leer na ñëpp taxawaay bi rafet na loolu moom it mu bàyyi itam yëpp jóge Tuubaa ñëw ànd ak man bis bi jërëjëf Mbacké maa ngi nuyu mboolem kilifa diine yi fi tam yaakaar naa ne ba ñu xëyee ak tey kenn desut am na ñoo xam ci bëccëg bi leen fi yendu ku ne xam ne bisu tey bi xat na te ay xew-xew yu bari na lool Serigne Modou Sall di sama xarit maa ngi moom ñaar Serigne Modou Sall xam naa ne néew na lu may woote bis bii te du ngeen dégg aw turam ñu di ko tudd am na doomam yoo xam mu nga ci sama kër Touba ca daara ja di jàng alxuraan di sëtu suñ Balla Joor mi ngi toog moom it ak mboolem kilifa yi diine yëpp mboolem njabootu suñ Touba yi teew ak jullit yëpp ma ñëw nag ci Kamalu Bamba sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëy sëriñ Chebéru moom borom Daarul Muxti Ceerno Ibrahima bis bi neex na lool borom daal neex na lool Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax loolu moom dégg nañ si Moussa Ka ko wax naan maam Thiar na ko dalal Bachine ba Bamba ñëw lu nga ci teg moo ko kon lépp borom daaroo ko defal moom sëñ Modou Moustapha ndax sëñ Modou waaye juróomu jigéen soxna Aminta Lo sëñ Touba yi dépare Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor di ñëw Daru Salaam mën na ni sëriñ bi amul jigéen bu ne ci këram soxna Fatima Samba Diop soxna Fatima Boye Diop mu ñëw daaral ko mbirum soxna Aminta Lo ne ko sëñ Mata sëñ Majeng Fallou yoroon na soxna su baax soo xamante ni jàpp naa ne su nekkee ci sa kër gii dana fi am lu barkeel sëñ Tuubaa ne ko damaa jëm ci ab tukki te bëgg moo yóbbale àq waaye dégg naa li nga wax bi mu ñëwee Mbàkke kaj Mbàkke Mbàkke Bawal fekk fa nijaayam sëriñ bu soobee mu wax ko ne ko dama lay jox soxna ñun tollu aw bu sa nii di sa rakk di sama doom te soxna sa te sëñ bu soobee ak soxna jaaraa bokk lépp mm-hmm. sëñ Tuubaa li mu ko ci tegal mooy bu fi eh, bu fi awa bu sodee jiitut yéen ñi Aminata fi jiitu fi doon nii sëñ bi soxna awa bu sodee ko njëkk a jox di soxna Aminata waaye sëñ Tuubaa ku ñeme ko lëre la waaye dafa wax ne yéen ñi moo fi jiitu benn toogee ba dal ci la yebal borom Daaru Muxti mu dem jëli soxna Aminata Lo ñeenti ci kër gi kon sëñ Modou Moustapha lépp bàyyam Cerno ko dafay nit ku dem jëli sa waajur wu jigéen andi ko ci sa kër waajur bu góor ba nga àdduna moo yabal ndaw ne la waral sëriñ bi foo ko fekk ci penk bi ne ko soxna Aminata Lo am na kat ba mu ñëwee yëpp la ca la ca war lañ ca war a def lépp moom la ko sëriñ Tuubaa dénk na ko na ko def moom borom dara moo ci keroog bi muy génn ci këram nga ci Mbàkke Mbàkke Mbàkke Kajoor Mbàkke Mbàkke Bari Jolof ca gaaw bu dëgër boobu yor yor boobu dëgër boobu yi teg ñaari teg loxo mi ci njabootam nga dem fa nekkal yëpp wax leen wax ju njaboot gi dénk naa leen yàlla akub yonentam njaboot gaa ngi noonu borom daaru Thierno Ibra Faty borom daarul mufti sëriñ bi fekk ne ko taxaw na fii ci jumaay Tuubaa gi nekk ak garabu bépp ne ko Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko fii la ma jamono di mujjee gisee su ma fi jógee fii lañ may denc loolu borom Tuubaa wax na ko borom daaru Muxti borom daaru nee na ma xam ne kon dinaa ko fekke nee ginnaaw sëñ bi xam na ne rek wax na ma ne bu mu fi liggéey fii la may denc bis boobu danaa ko fekke te xaw ma ne guddi la doon wala bëccëg nee ma dem ba ci ak garab wut fa ay xànc nga takk ko ak ndax bu dee guddi ma mën koo natt loolu kon sëriñ bi mm-hmm. dañoo delloo barke ca ndaar bis bii sëñ Modou Moussa ko moom sëñ Modou Moussa laa koy def ci biir ak ci bitti sëñ Modou ko moom moom laa moom laa jaayanteel sama adduna ak sama àllaaxira Cheikh Mouhamadou Moustapha bis bii moom laa koy wooteel moo tax du ko politiquee du ko wute xaalis du ma ko wute daraja waaye nag dinaa ko fasante ak nit wëllëre nag danaa gi nit ku baax ku tege ci aw yoon ma ne la kaay ñu bokk bis bi sama diggante moom sëriñ bi ku baax la yàlla xam na loolu magal lii mujj ba ma excès teew ma sëñ Modou Mbour mi ba mu ba mu toog dana ma kaay toog nii sama wet mi denn maa la de ba muy dugg sama loxo ma tëye ci loxo ñu ànd ubbi biir baas bi loolu la def ci màggalu ren bi kon man sama xarit la sama soppee la koo xam suma kóllëre la jëm ñu xaalim jërëjëf waaye dafa ne loolu ñoo ngi ci sa wet lépp loo nekk danañ ko am bu soobee suñu borom soxna Aysatu bàkki waaw léegi xam nga damay leeral moom laa bëggoon a leeral yàlla mi ma waaw waaw mm-hmm. Mm-hmm.

moom mii li mu wax noonu la demee sëñ jërëjëf moom mii li mu wax nii jërëjëf xam nga li mu wax nii bi bi ma xalaatee ci sëñ xaadim ndax dañuy waxtaan maak moom maak sëñ Baara Njaay mii amut lu ñuy umpante dañuy waxtaan ci lépp dañ ci waxtaan maak moom day ñëw sama kër di lekk may dem këram di lekk su ma yónnee fan yii rek yàggul dara sama bunt kër Touba laa toog mu ne ma woo ma téléphone bi su màggalu Daaru Rahman gii passé mu woo ma téléphone ne ma damaa jaar ci ku ku jaay misu yàpp wu neex maa ngi nii di jënd yónnee la ko keroog bi ñëwee ca mbedd ma laa ko teg ñu ñu ñu xéwloo ko maak ñoom xaadim mii moom sëñ Baara Njaay mii soxnaam seedi soxna kat yi kuy kuy lii ay istateem doo gis semaine bu ma istatiwul di wax ne man sëñ Moustapha mooy sama sëriñ maa moom benn lañ du ñu ñaar bis bii noonu ma ko waxee noonu la demee dañ doon xalaat ci ñi nga xamante ne nii seen naw nañ leen ci jikko ngir ñu tudde leen bis bii maa ngi moom nañ doon xalaat ci loolu. bi ma demee ba ne ko man suñu xaarit kamal laa tànn mu ne ma d'accord naa loolu la ma wax mi ngi nii toog mu ne ma d'accord naa loo ci xalaat rek loo xalaat ci moom rek niñ ci moom loolu la ma wax suñu xaarit kamal kon sëñ bi noonu mu seede ci yow lu mu gëm la. te li muy wax ci suuf la kon bu ko waxee ci kaw dëgg la jërëjëf soxna Astou jërëjëf Kunta yow sama waajur nga maa ngi koy sama mbokk yëpp nag ne yow sama yaay man maa la jël def la sama waajur maa ko def waaw dama engagé wu ci loolu dama jël soxna sii def ko muy sama ndey waaw foofu laa tollu sama diggante ak moom nit mënta am lu gën a foor ndey te moom mii noonu laa def sama diggante ak moom waxuma la tuddee ak màggal waaye ñaan naa suñu borom man leewu doom ne ko yaay kii laa ko tuddee foofu laa toll sama diggante ku baax ngi nii barki seexul xadim ñëw na sama kër ñaari yoon Touba ni mu fi mujj sama tudd la mu jóge Njaasaan ñëw yendoog man ba ngoon jot bàyyi yitteem yëpp ànd ak njabootam yëpp ñëw képp ku mu fa fekk tam waroon koo teral soxna si moo ko teral moom si bu baax la ku mot a jàppanteel la te ñii ñii ko gis toogee ñu noonu la mel dara mbiram dara ko ci lépp lu leer la yàlla xam na loolu boo boo toogee ak moom yow ni mu la jàngale ab yar ci sa yaram da ciy daw ni la jànge ni nga jàng ci moom ab yar sa yaram ciy daw moom soxna si lépp loo lépp loo dem loo loo yor ba jàpp ne am nga dara ba toog ak moom moom moo la ëppale ba gën laa yaru te lii ma lii ma wax nii mboolem njabootam gi ma àndal duñ ma jëpp sama kàddu yi ndax xam ne li ma wax dëgg la. bi dem Ndiassane. waaw kon soxna si jërëjëf barki dem ci alxames yi la fi yónni sëñ Modou Mbour mii jox ko teraanga joo xamante ne nii su ma ko tuddoon ci bâche bi dana am ñoo xamante ne waa loolu est-ce mën naa ne hmm? yàlla mi ma tiim xam na loolu barki sëñ Tuubaa. romb na neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre na ko romb li ma jox ak guddi gii ma nekk romb na loolu kon kooku jox na def na teraanga ci bis bi sëñ Modou Mboum mii la yabal jox teraanga li ma ci gën a yéem nag bi mu defee loolu lépp ba noppi tey ñu togg ay xéewal yu bari te doy ne ko ñu ngi lay fekk Ndiassane andil la ko mu ne ma sama tànta di soxna Ami Fatou Seen moom sëñ Modou Moustapha mu ngi dakaar Kër Mbay Fall dama ñu wutal ma ko moom moo ma gënal loolu la ma wax ba noppi envoyé ma numéro doomi soxna si ne ma woo ko nga dem boo demee nga jo ndaw yi bu ñu demee yóbbul ko añ bi ndax looloo ma gënal man lool lool lool loolu la ma wax nga xam ne man daf maa soññiwaat ndax man maa waroon a xam ne soxna saa ngi Dakar di doomi sëñ Modou Moustapha ma togg añ yóbbul ko ko waaye moom moo ma sant añ ñi ma ko waroon a indil ma dem yóbbul ko soxna si jëf jëf jëf na ko tey jëf ju rafet ku mën a rafetale ngi nii te baax sëñ Modou Gueye bu ngeen moom ngeen gis naa ci image yële li waral lee mooy màggalu Tuubaa ji jàll xaritam di sama rakk Baye Dieng da ko woo téléphone ne ko sëñ Modou dama bëgg nga ñëw fii ci sunu kër Tuubaa nga daal ak ñun moom it mu nangu loolu ñëw dal ci kër ga nekk yi ne moom fa nekk ak ñun rafet neex ma ma ne ko bisub sëñ Modou Moussa bii moo koy defal mënuñ ci eggee yow laay def sama invité loolu moo waral lii booba ca buñ jógee ca màggal ak léegi su ma juumal ñaari yoon lañ fi gisantewaat muy guddi gi mu doon ñaanal waajuram ak bi ma amee am tudd tubaab mu ñëwaat fa ak keroog bi ñu demee di ko yëgali bis bii jataay yooyu lañ fi gisantewaat waaye boobu ba léegi déggante gi ñu déggante rafet gu mu rafet ak yiwe gu mu yiwe jikkoom doy bu ñu doy ñu gën a feddiliwaat jataay bi suñu diggante ak moom waaye moom it lépp lu mën ci teraanga ci bis bi def na ko ci lépp rek lu mën teraanga ci bi def na ko ci mu jaarloo ci rakkam jii di sëñ Bada ko ñoom ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi nga xam ne ñoo keroog jataay ba exemple bu rafet ñu bi ñu def foofu keroog nga xam ñun ñëpp keroog daw na suñu yaram ñun ñu àndoon ñëpp sëñ Bada mii di nit ku baax moom it di koo xamante ne ni nangu ne magam jooju rek ak mbaax fa la mën a yem ndax koo xamante ne nii yorul la sa kër te na bu dee wërsëgu àdduna ëppalewu la ko waaye muy sa mag nga nangu mag nga nangu ngir a rafet nag xam na nit mën na laa mag ba noppi nag te doo ko jox cëru mag waaye jox ko ko jox yu rafet nag kon sëñ Badou jërëjëf yaa ngi njaboot yi nga ànd ñëpp noonu nga ko limee soxna yi sëñ Modou ak say soxna yi bopp ak say doom say taalibe ak say rakk bi yëpp nga àndal léegi nag li ci des ci kàddu yi guddi na jataay bi yàgg na am na ñoo xam vingt trois heures wala lu ko lu ko lu ko lu ko gën a kawee sax vingt deux heures ba léegi ñu ngi ci bi toog te loolu metti na te man tamit bu ma sañoon jàngkat yi xasida yi fi teew ma diglu leen kenn par kenn toog ak ñoom ci baas bi njàng xasida ñu leen taral ngir Sëñ Tuubaa ndax ñoom loolu leen fi indi leen fi indi nag war ma leen ko xañ kon jàngkat yi xasida damaa bëgg a toog ak ñoom ci bâche ba ca kanam ma yeewi kilifa yii ñoom it ñu dem nekk ci seen yittey bopp Euh, ñu wéyal jotaay bi euh, njaboot gi nag bala maa joxe yii may joxe nga xamante ne sëñ Xaadim Kamal euh, sëñ Abdou Lahad Mbacke moo ko jox nataal bii nga xamante ni nii dafa nañ ko jëmmam ngir mu fàttali ji bis bu guddi gu tedd gii di guddi Cheikh Mouhamadou Moustapha yii ñu ko tuddee nga xam bëggatuñ nga fàtte ko mukk guddi gii moo tax ñu def nataal yii di leen ko jëbbal njabootu sama njabootu bopp gi maa ngi ci maa ngi ci jiital nag waa dëkk bii ma dëkk di waa Cité Mandela wala waa Fass Mbao wala waa commune Diamaguène Sicap Mbao amatuma seenu fay dem ci guddi bi may def dernier réglage waa fondation Al Karim nee naa leen lépp lu ñu doon def war nañ ko gën a yokk nit ñi nag lépp lu ñuy war defal defal nañ ko ñu war a féete féete nañu fa suba problème bi ngay dégg mooy sëñ bi lu tax nga waxoon ma ne da indi ay gan sama kër ba nag indi wax fa ngay dégg ndax ñëpp ñoo pare woon pour dalal seen kër ay kër kër waa dëkk bi yëpp ñoo pare woon pour ñu indi leen ay gan ñu toppatoo gan ña ngir wan wan ne màgg màggal gi dem na ba màggalu Tuubaa fas Mbaw lañ ko tuddee kon ñëpp mu màggal googu la ñuy wax ñoo xam dañ ko def seenu màggal rawatina na suñu waajur yu jigéen ñi su ma tuddee sama yaay soxna Ngoone Njaay tudd yaay Ndey Loo soxna Umi day mel ne ñoom rek ak daayira maam jaara bi ñaar njaay ñoom su ma leen tuddee day mel na tudd naa ñëpp waaye nag di sant bu baax it jàmbari fondation Al Karim bi yii nga xamante bi nii ñooy soxna yi ki njiitul soxna maam jaara baar gaynde googu nga xamante bi nii moom it fi mu ngànk maam ngànk na ko te du ko ñàppi mukk ba élaaj mi mhm. loolu moom wér na ko bu baax a baax a baax a baax moo soxna Ayda Maana ñoom soxna Aram ak soxna Ndey Aana ak mboolem soldaar yëpp soo soxna Ami Jaaj ñoom soxna Ndey Asu ñi nga xamante wax dëgg yàlla eh, seen pas-pas yu kawe yi ñu ànd ak man yéem na ma lool wax dëgg yàlla ndax bis bi dañ maa wan ne ma ñoo la ko gën a bëgg ñoo la gën a fonk te bis bi suñu bisam kon nag jërë ngeen jëf moo tax maa ngi yéen buñ tàggalikoo mukk lu ngeen nekk maa ngi ci waxumal dara waaye seen doomi jigéen yi ni ngeen ko bàyyeek man nga xamante bi ne ni léeg-léeg moo woo ci kenn yóbbu ko Tuubaa mën na fa def semaine te te du ngeen ma ne ma sëñ bi sama doom na ñibbisi wala nangam dama nekk fii bàyyi ko sama kër Touba waxtu bu ne laa leen di yëkkati ku ma ci soxla wala téléphone ne la ñëwal def nangam li ngay wax sa am na ci ñoo xam dañ naa ba seeni waajur yu góor dañ maa woo téléphone ne ma sëñ bi wax naa sama doom ne ko bu la sëñ bi wootee bëgg nangam bul ma tàgg waaw ñu bëri ñoom loolu lañ wax seeni waajur jigéen kon jërë ngeen jëf soxna Radial sekk ne ko noonu ak njabootam gépp waajuru sëñ Maxtaar Ngom kooku nit ñu taxawoo ba liggéey bi bépp am sant ak ngërëm rek lañ ko ameel ak ñaan suñu Amadou Diouf suñu Bonaama Njaay jëwriñu mbooloo mi jërë ngeen jëf suñu Modou Diop li ngeen bëggoon am ngeen ko bis bii ngeen bëggoon taxawal mu réussir réussir na li ngeen bëggoon lépp suñu borom dafa na suñu Moussa Njaay daa ngeen jëf am ngeen ndam yéen yéen a am ndam yéen laxasaay laxasaa woon jël ay dar takk ko seen ndigg ne dañoo bëgg dañoo bëgg nekk nañ sa ginnaaw te duñ dellu ginnaaw waaw ni ma leen ko waxee woon fii démb ne leen yéen la saxaaba yi jaay woon kër Xudaybiya bi bi bi yéen saw salaam jógee ne day umra ji ñu ñu ñenn ci waa Makka ñëw gantal ko mu yebal Seydina Ousmane ñu ko dama la waxtaanal ma ak ñoom luñ luñ luñ bëgg rek ne fekk si na leen fi tey waaye duma xeex ak ñoom benn yoon keroog bi ndaw yu ñëwee eh, am ku ñëw ne ko rey nañ Ousmane Seydina Aliou nee na keroog yéen sa sam yéen woo jaayante ñu laaj ko ne ko lu leen jaayante ñun ñu ne ko dee leen jaayante Seydina Aliou nee na keroog bi dee leen jaayante yonent bi alayhi salaatu salaam waaye yéen seen pas-pas yi foofu rek laa ko dugal foofu rek laa dugal seen pas-pas yu kaw yi ngeen yor ay jàmbar ngeen ay ay ay ay ay nit ñoo xamante ni ñu li li ma li ma lépp lu ma bëgg yéen a ngi ci guddi muy guddi muy bëccëg sonnal ngeen ma lool yéen a yéen a ngeen ma ndam lool yéene ko ndam loo xamante ni jéggi na day waaye nag na ngeen xam ne maa ngi nii man yéen maay seenub serviteur yéen maay seenub xaadim man yéen lay liggéeyal yéen yéenay liggéeyal askan wi waaye man yéen lay liggéeyal ci seen wet laa maa ngi yéen dañuy ànd liggéey di di ko liggéeyal seexul xaadim ba biir aljana duñ tàggali ko mukk maag yéen barke sëñ Tuubaa tudd yéen may tudd seen i doom yéen yéen may tudd yu bëri ci mbooloo mi tudd nañ ma seeni doom nit doom la am li gën a foor ci moom te yéen a ngi jël seen i doom di ma ko tudde di yëkk yëkkati seen doom di ma ko jébbal ñu ëpp ci ñoom ña nga ca Touba ca daara ji di jàng alxuraan ñu ci yéen seen nga Touba ca daara ji di jàng alxuraan loolu yëpp rek kon jërë ngeen jëf maa ngi leen di gën a dénk nag lépp lu ngeen mën a gën a góorgóorlu ci gën a góor góorgóorluwaat ci bennoo na ngeen ko def te ngeen xam ne yéen ay murit ngeen laata ngeen doon ay murit na ay jullit ngeen na ngeen fonk jaamu yàlla te jiital julli juróom na ngeen góorgóorlu ci fonk jaamu yàlla te jiital julli juróom tey képp ku ci am alal ju refekkente ren ba déwén na ciy génn asaka képp ku mën a doon ci yéen na nga fonk weeru koor rawatina jigéen ñi fonk leen weeru koor te seen bari koor yi dee leen ko fay rawatina fin ci toll nii nag fin toll nii weer waa ngi bëgg a ñëw ku ci amoon bor daaw na ko fay bala ñu egg ci weer bi na di fonk képp ku ci am alal ju at aj mat dem aj màkk na nga ko def na ngeen gën a góor góorgóorlu fonk seen waajur yu jigéen yi ak seen waajur yu góor yi fonk leen leen te téye leen te jàpp leen. Abdoul Hakim sëñ Abdoul Hakim maa ngi déglu koy sant bu baax a baax a baax a baax ndeysaan moom nit ku baax la sëñ Xaalim sëñ Abdoul Hakim dégg ngeen nit ku baax baax danañ jàppante ak la ndaw baax la bu baax la bu baax te am yitte am nañu yéene nag ci lu baax ñëpp doon benn nga xam ne lu ñu bokk kenn ku si nekk man nga jàppanteeg sa morom te du yàqu dara ci sa cër. kon suñu bàcc yi jërëjëf sa taxawaay la lool suñu Amadou Sow ñëw fi la yenn tey moo nekk waaye gis nga bu baax nag ma ko waxee sama rakk di sama xarit yàlla na la yàlla sàmm aar la te mosal am ndox. dinañ ko si sama xarit moo si mos ginnaaw féete féete gi moo waral loolu waaye maa ngi ci jël bu baax a baax maa ngi sant nag bu baax a baax a baax si Abdoulaye Aliou sëñ Ama Aliou sëñ Saliou sëñ Moustapha Faye maa ngi sant sëñ Amadou Mokhtar sama baay sama xarit boobu nga xamante ni a defal nit lépp lu baay war a lépp lu ab sëriñ nga dafa taalibeem sëriñ Ahmadu dafa loo xalaat rek sëriñ bi dafa taw sëriñ Ahmadu Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér ci barke sëriñ Tuubaa man ab taalibeem laa boo xamante dama dana ko liggéeyal ci at mu sëpp ba ñëpp xam ne man moom laay liggéeyal moom yi Ahmadu Muxtaar kon sëriñ bi maa ngi leen di seedal kàddu yooyu ngeen bàyyi ma ko sëriñ kon xam ne lii la wax léegi ne sëriñ bi amoon na yéene ñëw ah kay sëñ Mamour Lo Gueye jublu na léegi kàddu kàddu yu sëriñ yoo xam ne ñu bi ñu bi ci am tool ba noppi ba am tool deux heures mooy treize la ma suñu suñu soxla Ndiaye ñëw moom ma woo boppam téléphone deux heures mooy treize. jigéen rajo la rajo bi ne ma seen émission bi ba bi ci tudd gars yi ñu doon wax yi naan ku ah, xees bi dinañ tudd par benn. nga xam ne kon li mu wane mooy ma Maxtaar Ngom ak sëñ Moussa Ndiaye mii loolu li mu doon wane mooy maa ngi doon seet topp naa émission bi ba mu jeex tàkk ba mu noppee ma ne ko ma teg ci ne waaw gaa ngi ñu waajal bis bi lan ma ca tegal su ma amul benn ngànt maa ñëw sama bopp loolu la ma guddi àll bi gii paas su ma amul benn ngànt ba démb rek ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla sëriñ bi fi mu ci ak mag ak it ji fi mu ñu di ko déplacé ci xat te bu ñëwoon rek da nga am problème sëriñ bi rek doy na ak màggal bi li ñu gën a rek doy na ak màggal rek soxna Aminata Lo sama doom ji mu ci gën a àdduna moo ñëwul boppam tudd ko tuddee ko soxna mu Lo man sëriñ bi dama ko jaxaw bu dama leew sama doom daal tuddeel ma ko diw dama naan kooku tuddee baax na waaye ñaar tuddee samay doom ñoo ma gënal ci kaw suuf ndax ba mu leewoo doom ja tuddee ko sëriñ Modou Moussa ñëpp xam na ne sëriñ bi defal na ma lu ma waaye mu ñëwaat leewuwaat doom tudde soxna Aminta Lo soxna d'accord te nag gën a yéeme mooy ñëw na nga gis ku am ak taaw tudde ko sëñ Modou Moussa am ak doom tudde lu ci ëpp mooy da ngay jigéen amul yéene tudde Cheikh Moustapha muy far mu doon jigéen nga tudde ko waajuram soxna Aminta Lo waaye amul Cheikh Moustapha wala amul am soxna Aminta Lo loolu li mu am bëri na soxna Cheikh Moustapha mag soxna Aminta Lo loolu li ñu ko gis bëri na mosuma koo gis kon te benn tànn lu ma gis benn sama bopp yëpp sëriñ bi sëriñ bi nag am na ay doom bu a neexoon tuddee ko ay doomam bu ko neexoon tuddee ko waajuram bu jigéen waaye nag kan ko tuddee nag moo ma gënal keneen ko mënoon la kon sëriñ bi kàddu yaa ngi noonu sëriñ Mbacke Touré bàyyi kàlla borom jataay bi nag ci moom lay tëjee yéen ñëpp gis ngeen ne bi may dugg ci biir baas bi sërif Cheikh Tidiane Aidara moom laa ci loxoom sama loxo ñu ànd dugg ci biir baas bi ma nga nee toog moom moo moom bis bi léegi-léeg da ngay da ngay yéex tudd ñu sax ñu yaakaar leneen la waaye ci moom laa war a tëjee bis bii ak muñ ko mujjee woote fee ca terrain ba moom mi defoon pare bi par yàlla mu am gànt fépp ku Sénégal mu yebal ak njabootam ak ay magam ñëw teewal ko fa bërki démb la ñëw ci réew mi yàgg du fi dafa gis semaine bi mu yëgee bis bi rek laata moom ma di ko woo téléphone yëg na ñëw na ci réew moo yëg téléphone woo ma ne ma bis bi li fii yaa ngi koy def ma di ma fekk Sénégal maa ngi ñoo koy ànd sànq ca kër gi la ñëw ñu àndandoo maak moom ca kër ga ñëw ci baas bi bi ñu wàccee ci oto yi ñoo jàppante ay loxo ba dugg ba mu toog nii sëriñ Cheikh Tiguet sëriñ Cheikh jërëjëf ay dara yow yaa moom bis bi ñu fi teew ñëpp sa njaboot lañ ndax sëriñ Tuubaa sa yees sa maam la yaakaar ñu fi ñëpp yàgg soxna as mii yéen a moom yéen a moom jotaay kon nag jërëjëf ay dara sama diggante ak yow kon la léegi rafet na lool lool lool lool kon nag ñu daal di jublu rek. ci li nga xamante ni mooy neexal yi léegi Baara Ndiaye waaw sëñ bi sëñ bi moom moom sëñ Abdoulaye sëñ Ahmadou Moukhtar moom sëñ Aliou da yebal waaye sëñ Ahmadou Moukhtar du ñu fekk sëñ Abdoulaye ndax sëñ Abdoulaye moom moom lu ma xewle boo ñëwee dem fekk sëñ man sëñ Ahmadou Moukhtar mooy sama sëriñ waaye man sëñ Ahmadou sëñ Abdoulaye Mbacke sëñ Aliou mii moom laa gën a féetal fi mboolem njabootu sëñ Modou Moustapha yëpp te loolu ñëpp xam nañ suñu am laaj muy toog moom laa gën a féeteel moom it moomu féetewoo bëggal ma boppam jàppal ma boppam te lii tàmbaliwul tey ba may nekk Tuubaa di woote bis bii di ko tàmbalee ci kase ak miskit booba la ma ci daan teew di ma jàppale moom suñu mbaataan kon moom nit mi ngi ñuy teew kon ñoom ñëw moom bu kàddu gi bu daanee ñoom lañ def kàddu bu ñaanal mbooloo mi waaye kon damay jox sëñ Baara gi ay neexal bii soxna soxna Magu Dia wala ya ya ya ya ya yaa yaa yaa Ngoone Njaay damaa bëgg nga ñëw fii lii soxna soxna soxna sëy na bu gay nañ ko defal ci bis bii may may soxna si mu ñëw dama ma soxna si yàlla na ko yàlla yërëm dañ baara ñaanal ko bu baax moo nekk nii kon sëñ Badou Pouy

moom alaaji maam bu Kunta nataal ko taaru bi sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom suñu daan bu suñu daan ko ah. def ah, d'accord kon nag sëriñ Abdou Lahad moom it moo jox mbokkam waaw ah, mi ngi noonu na ko moom jalaal ji ak jamaan affaire bi waaw ñenn ak sëñ a nekk de ci dem la ni boole ko ak doomi sëriñ Aliou sëriñ Basiru moom sëriñ Aliou sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Aliou ñu ñëw fekk fii sëriñ Abdul Ahad Mbakke mii di sa lépp sëriñ Ahmadou wax ko ni ko yónneenu si Ahmadou Muxtaar biñ la fekkee tegaat nañ ko ci sa loxo kon kàddu gi yaa ko yor sëriñ Abdul Ahad wax ni naa jël kàddu ci turu sëñ bi rek sëñ bi sa digg ak moom leer na doom la la def xarit la la def boole la ci njabootu boppam àdduna jëpp xam nañ ko damay wax ni sëriñ Ahmadul Muxtaar dafa amul sago ci sëriñ Moussa Ndiaye mii loolu moom leer na njaboot gii toog di sëriñ Abdou mii ak sëriñ Ahmadul Muxtaar man nanoo seere lool dafa amul sago ci jëmmam jii àgg na ci ñun ñiy jaxasoog moom kum ci gis lim lay njëkk a wax ana alkarim ñun ñi jaxasoog Cheikh Moussa mii ku ci nuyu sëñ bi lim lay njëkk a wax mooy ana alkarim daal di reetaan gën nga koo dégg wala mi ngi fi loolu cofeel la goo xam ne yàllaa ko def kenn mënu ci dara yàlla moo def cofeel diggante sëriñ Ahmadul Muxtaar ak sëriñ Moussa Ndiaye mii te ñi xam sëriñ Ahmadul Muxtaar ñëpp. xam ko xam si Ahmadou daal xam nañ ni ku dal la ku dal la bëgg mbir manifester ko ba nit ñi xam ko yombut ci moom kon bu ko defee ba njabootam xam ko kon Moustapha doxin wi am na solo lam la digaloon itam sëriñ Ahmadou ngi nii sëriñ a ngi nii bu àggee am nañ luñ ko wax man mii maa kàddu ga nga siyaar si ko ànd ak fondation bii sëriñ bi di ma wax may jot li sëriñ bi wax la ni la lislaam ngay liggéeyal ca Cheikh Moustapha foofu la nekkoon ca lislaam laa fekk du dëgër sëñ Ahmadou mii toog dina ko wax bi sëñ Abdoulaye da ngi toog dina ko leeral sëñ bi seen ànd bii ngir ànd di ay jullit sëñ Ahmadou Muxtaar bég na ci ca dana ko dégg ndax mi ngi koy fi mu toll nii tembe bu nuy génn baas bii muy woo sëñ Ahmadou mi ni ko nu ngeen def ak nu nu yëfee def kon nag li nu fi fekk moo lam la waxoon ba nga toogee ci kippaaram rek ñoo yam mooy liggéeyal lislaam te jaare ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax moom ci loolu la nekkoon nga xamal ko nag damaa am pas-pasu wane Cheikh Mouhamadou Moustapha mag moo xam ne 1945 la fi bàyyeekoo woon ba mu fiy koo booba sax tuuti nga bu fekkee juddu woon na nga ñëw fas yéene teg sa tànk ci wane ay jëfam ak ay mbiram ba àdduna jëpp ku umpaleewul Cheikh Moustapha sa jéem a gëstu Cheikh Moustapha am nga ndam Cheikh Ahmadou Moukhtar nee na mi ngi lay sant mu ngi lay gërëm lam la waxoon mooy li ma xam ci yow mooy cofeel goo am ci bëgg Cheikh Moustapha wax ne la góorgóorlu ci ndax loolu rek moo lay jariñ nee na mi ngi lay sant mi ngi lay ñaanal ñaan gu am tàmbali ci amutu yemukaay mi ngi ñaanal sëriñ si fi nekk ñëpp jataay bi jataay bi sëñ Mourou Moussa la waaye jataay lislaam la sëñ Mourou Moussa daa waxoon ni sëñ Touba moo ma jur dégg naa ay ngërëmam ay yoon waaye wax man Mouhamadul Moussa juba ma doy sa kaddu yi nga mujj soññee ci njaboot gi ngi àndal wàcc nga jërëjëf yàlla na yàlla yàggal la fi yàggal fi fondation bi yàggal fi mboolem ko fi teew dara ji sëñ Touba